di bu yàlla ak mbokk yi nga xam ne seen jëmm teewut ci barab bi waaye ñi ngi topp jotaay bi ci barab ya nag ñi ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell te gën a màgg ci nuyoo yépp muy nuyoob lislaam te nuyoob lislaam moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaan nuyo bi lim làmboo ci jàmm ak yërmande ak barke yàlla nañu ko suñu borom boole defal nuyoo bi ak ziyaar bi nag ñu ngi ciy jiital kilifa yoon wi di suñu sëriñ di Seex Muhammadul Muntaqa di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi lool yokk wéram ba mottali ay naalam ci yoon wi ak ci lislaam ji lépp di ndokkeel mbooleem jullit ñépp ci weeru sell bu màgg wi di sëxru ramadaan al mubaarak di leen ci baalu ak di leen ci baal àq di ñaan yàlla ñu yàlla boole bal euh, mbokk yi daayiratu muqaddamatul xidma ni mu ko baaxoo defee weeru koor wu nekk di amal ay waxtaani xam-xam ak waxtaani jàngale ci jumaa ji tey moo dellusiwaat fa seeni ànd ak yéen benn tomb ci tombi waxtaan yooyu tomb bi nga xam ne moom lañ fa séenee waxtaane tey mu ngi jëm ci koo xam ne daa réer wala koo xam ne dañ koo ñàkk xamutuñ ci moom dara ay mbokkam njabootam soxnaam waa këram xamatuñ ci moom dara dem na mën naa am ci biir réew mi la ne wala sax bitim réew dem na daal kenn xamatuñ ci moom dara ku mel noonu lan la lislaam jàngale ci ay mbiram ak yan àtte ñoo aju ci mbiram loolu insha allahu moom lañ fa yéene waxtaane tey muy tomb bu am solo bu mata waxtaane ndax dunduk doomu aadama di cee bokk toxu nit fam fekk baax léeg-léeg mu dund fa ba bàyyi koo ci àdduna te déplacé wu fa loolu lu jafe la kon wu ci dunduk doomu aadama la bokk ci li yàlla digle sax la bokk muy tukki qul siiru fil ardi fanzuru kayfa bada al xalq tukki moom daa bokk ci dund gi léeg-léeg nag nit dana bàyyikoo ci dëkk bi mu dëkk ci coobareem dem ci beneen dëkk ci coobareem la ko fa tax a jug la ko fa tax a dem mu wut ko fa ba noppi dellusiwaat dara du am waaye léeg-léegi nag nit tukki dem ci barab bëgg ñëw far am lu ko teq du mën a ñëw dem ba mujj sax ay mbokkam ak ay waa këram luñ xam ci moom luñ nekk xamuñ ndax moom mi ngi dund xamuñ sax moom euh, dundut muy tomb bu am solo boo xam ne daa laal dunduk doomu aadama yi waaye it daa doon luy xew ñu di ci teg bët muy xew ci jamono ju nekk ak euh, waxtu wu nekk kon tomb bu am solo la boo xam ne mag naa waxtaane te daa bokk ci yi nga xam ne sariya saafara na ko wax na yi ci aju yépp te te mën koo saafara euh, waxtaan wi nag ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Mourtada Bousso ñu gën koo xam ci sëriñ Mourtada Bousso imam muy boroom xam-xam di jàngalekat di koo xam ne am njàngum alxuraan fii la ko defee am njàngum xam-xam it fii la ko tàmbalee ci dëkk bi eh, ginnaaw bi mu dem gànnaar Mauritanie eh, mottalee fa am njàngaleem ñëwaat ci réew mi ñëwaatee ci réew mi it ab yëngoom lépp ñu ngi ko jëmee ci jàng ak jàngale jamono ji may waxe génn nii xaadi la xaadi sari la maanaam ab àttekat la boo xam ne fal nañ ko muy ab àttekat ci eh, tribunal yi ci Sénégal àttekat ci wàllu sharia lislaam di ay boroomi taxawaay yu am solo ci luy lëkkale diggante Touba ak alamul islaami diggante Touba ak monde islamique rawatina diggante Touba ak gànnaar di ciy def ay jéego yu am solo di gën a dëgëral diggante bi di ko gën a rataxal waxtu wu ne mi ngi jóge fii di dem Murtani di jóge Murtani di ñëwaat fii di ci def ay jéego yu am solo euh, muy koo xam ne mën nañoo wax ne daal euh, suñ Murtada Bousso daal moom diggante gànnaar ak Sénégal maanaam Sénégal ak gànnaar daal la ko séq kenn ëpp cërit morom bi ci moom moom moo ñu fa yéene defal waxtaan wi insha allah kon xam naa ne ngir bañ a guddal rek ci tàmbali bi te duñ dox seen digg ak sëriñ Murtada dañ koy jox kàddu gi insha allah mu duggal ñu ci waxtaan wi waxtaan wi jëm ci al al mafxuudu wa ahkaamuhu mooy koo xam ne ay mbiram xamatuñ ci dara lan la ci sariya wax kon sëriñ Murtada bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin jërëjëf sunu doom sunu jarbaat sëriñ xaadim maa ngi teg ci sa loxo nuyoo bërëb bu tedd bii ñu nekk ginnaaw bi ñu nuyoo borom bërëb bi bu pare mu yàlla subhaanahu wa taala waaye nuyoo ñi nga xam ne ñooy saytu bërëb bii nag diwaa waa daairatum xaddamatul xidma te ki ko jiite di sunu mag waaye di sunu sëriñ ndax jàpp naa ne moo njëkk jàngal sax xam-xam sëriñ Aafiya al Muxt moom Baye Muxtaar ak mboolem it ñu topp ci ginnaawam ñëpp it yàlla dogal ca ñi ci ëpp sax mat naa ne samay mag lañ kon sëñ Xaadim maa ngi teg ci yow yow mi nekk ci bunt bi tey nuyoo boobu nga jàllaleel ma ko ci ñooñu jàpp naa ne ku jaare ci muxaddamatul xidma mën ngaa nuyu yoonu murit yëpp ñëpp dugg nañ ci biir ndax muxaddamatul xidma mu assasa la boo xamante ni yoonu murit moo ko moom kon ku ci jaare rek bunt la boo xam ne bunt bu yaatoo yaatu la ku mën ngaa dugg fépp mën ngaa duggee ci kilifa yu mag yi mën ngaa duggee ba ci ñi gën a ndawee ci yoonu murit euh, thème bii nga wax nga xam ne moom ngeen bëgg ñu nafaralante ko ak mbokki taalibe yi sàkkati xam-xam yi euh, di thème bu am solo thème yëpp am solo alhamdulilah yi ñu tànn waaye bi it baax na ndax loo xamante ni actualité la waaqe la loo xamante ni lu nit ki luy am la lu bare bari mooy mbir la moo xamante ni nit ki danay jànkonteeg moom lu bare bari ci dundam loolu nga junj ñi nga xam ne ñu ngi ci tribunal yi xam nañ ci dara bu baax a baax bari na ci li ñuy jëfalanteel waaye ci masala masaa'il yu mel nii bari na ci muy al mafquud al mafquud nag. bokkut ak ak daa daa lépp ci ñu ngi koy jëfandikoo mooy ci laneen lu dul doomu aadama waaye nit moom moom lañuy ñuy jëfandikoo al mafquut mooy koo xamante ni dafa fàddu koo xam ne gisuñ ko kon kooku nag la ñuy waxtaanee waxtaane wuñ xaalis bu réer waxtaanewuñ oto bu réer waxtaane wuñ kurus gu réer nit ku sànku moom la ñuy waxtaane fuqaha yi dañuy beral masala mii nga xamante ni mooy al mafquut bunt waaye foo ko fekk ci buntu al idda lañ koy sësale ndax al mafquud ak idda dañoo jokkoo bopp ndax boo ko xoolee da ngeen dana leen leer léegi incha allah ci ard bi ñu bëgg a def al mafquud li ki ci gën a bari kiñ ciy waxal mooy soxnas mooy kuréer mooy al mafquud waaye soxnaam si la ñuy waxal ndax soxnaam si mooy ki mënta muñ xam nga doom yi amuñ problème waaye soxnaam si nag mooy ki nga xam ne mi ngi toog di ko xaar gisagu ko kooku lañuy wax li aju ci moom ndax day toog ndax day dem ndax day sëyiwaat ak yu mel noonu moo tax ñoom day teyit loolu idda da cee am moo tax foog fekk fuqahaa yi almafquud mook baabul iddat la ñuy ndax dafa am taraabut gu am doole gu am seen diggante comme ni nga xamante ni it yi foo leen fekk euh, boo gisee li ñu tudde baabul xasaais mooy yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jagoo foo leen fekkit ñoom ci baabul nikaax lay jiitu foo ko fekk boo gisee li ko waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasaayisam yi yu ci baree bari da cee bari loo xam ne dafa nekk ci buntum nikaax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne moom la dagan mu takk lu ëpp ñeenti soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne moo dagan ci moom euh, wala boog moom la yàlla waral ci moom ku ko bañ ci soxna yi koo xamante ni wala yu mel noonu dalaa war a wàcc dëgg na tut muy ànd ak yow mooy kum comprendre ci yow ne la da nga ko bàyyi ak yu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa ba tey mooy ki nga xamante ni kum bàyyi keneen dootu la takk loolu yàlla moo ko araamal kon loolu rek lu gàtt la mooy li waral kon foog fekk mafkuur ngir ngir jàngkat yi ku koy wërati dee ko wër ci git boori baabul iddat ñooy dend foog fekk comme ni nga xamante ni xasaayis mooy jiitu baabu nikaa bunt bii lii nag du du conférence am njàngale la gën a doon ndax euh, baabul mafkuur am njàngale la moo tax kon xam naa ne dana ñor lool ja sàkkati yi waaye nag comme am njàng ngeen bàyyi xel ne buntum njàng boo ci bëggee jariñu il faut nga diglu njëlbeen nga wala ba ci mujj gi lenn la ci raw doo xam doo ci xam leen ndax dafa jokkaloo fi mu tàmbale bu fi mu yam loolu ngeen teel ko bàyyi xel njàngale la gën a doon waaye du du conférence am njàngale nag ci boo koy def da ngay diglu njëlbeen gi ba ci mujj gi bu la njëlbeen gi rawee ngir nga jariñoo mujj gi dana jafe wala boog da nga laaj laaj yu bare bare sa bopp ci li la koy waral mooy ñàkk na teewlu njëlbeen nga kon il faut que nit ki day diglu lépp almafxuut comme ni ko boroom xam-xam yi xamlee ibnu arafa mi nga xam ne ci xududam yooyu nga xam ne mooy xamle lu bare bare nim ko waxee rek mooy man inqataa xabaruhu mumkinul kashfu anhu koo xamante ni xibaaram amatuñ ko waaye nag mënees na ko wëri noonu la ko ibnu arafa xamle yeneen ulama yu bare bare taarif nañ ko waaye bu ngeen seetloo fuqaha malikee yi taarif yi ibnu arafa li ñuy gën a jëfandikoo ndax ibnu arafa foo ko fekk ni muy xamle day nekk taarif boo xamante ni jaamee lay doon maanee lay doon mooy day nekk xamle boo xamante ni li ci war a dugg lépp dana ci dugg waaye dana fexe it ba li ci war a génn dana ci génn moo tax ibnu arafa noonu mu ko xamlee ne mooy koo xam ne manin qataa xabaruhu mumkinul kashfa anhu dañ ne kuñ jàpp tëj la prison bokkoo ci ab asir bokku ci nekk noonu ba tey asir mooy prison kuñ jàpp cib xare nekk noonu ba tey mahbuus kuñ jàppoon tëj la cib kaso it bokkoo ci ndax ñooñu ku leen gëstu woon da leen xam waaye seeni xibaar kenn umput kenn ku ne xam na fañ nekk ñoom ñaar xam nga moo tax kon ñoom ñaar bokkuñ mafxuut nag dafa réer mafxuut ñeenti xaaj la ko boroom xam-xam yi séddalee ku mel ne ibnu rushdin nee na ñeenti nit ñooy réer mooy ñeenti ñi nga xam ne maa ngi koy bëgg a wax ku réer ci réewu jullit yi ci la ñu tàmbalee moo gën a bari lu ci aju ku réer ci réeru ci réewu maneen mu dul réewu jullit yi mooy ci réewum noon yi li may wax lépp nag ab xare taxut may wax waaye kii dafa réer ci réewu jullit yi kese ci luut xare ki ci des dafa réer ci réewu noon yi ñu réew mu ci luut xare ba tey ki ci des dafa réer cib xeex xeex boobu nag ñaari façon xeex moo am benn xeex bi mooy xeex bu am ci diggante jullit ak jullit ci la kooku réere nga xam ne bi mu jeexee kenn gisatu ko ki ci ku mujj ki nag mooy ki nga xam ne dafa réer ci xeex bi nga xamante ni diggante jullit yi la ak yéefar yi kon boo ko boolee mooy ñeent ñooñu ñooy mafkuur yooyu ki réer ci réewu jullit yi ki réer ci réewu noon yi ñaar yëpp nag ci lu xee xare moo tax may wax ñaar ñu mujj ñi mooy ñu ku réer ci xare xare bi nag wala yaasu billah léegi-léegi diggante jullit ak lay doon wala muy xare boo xam ne mooy biñ baaxoo xam mooy boo xamante ni diggante jullit ak noon yi lay doon ñoom ñooñu ku ci nekk am na loo xamante ni moom la fuqaha yi àtte ci yow ne noonu nga war a doxee mooy kim bàyyi noonu la war a doxee ah, ñu ngi koy tàmbalee ci ki nga xamante ni moo réer ci réewu jullit yi ku mel noonu koo xamante ni ay dafa réer ci réewu jullit yi kenn xamatut ci moom dara ci misaal ku jóge woon fenn nga dégg ñu ne mi ngi Sénégal gi wala nga dégg ñu ne mi ngi Mauritanie gii ñu jege wala ci leneen ci réew yu jullit yi ngay xam kenn gisatu ko kenn xamatut ci moom dara kooku ñim bàyyi nii lañuy def kim bàyyi kim bàyyi nag bu ñu ko dee wax xëy na ay soxna ay soxnaam moo tax ñuy wax ndax moo ci ki ci gën a lor waaye waxuñ nag ay doomam ak ñu mel noonu soxna si mu bàyyi dañ koy tànnaloo ñaar yi ñuy waaj wax soxna si nag moo xam ab jullit la ndax ab jullit dana takkub jullit loolu sax moo gën moo xam ab chrétien la ndax ab jullit dagan na mu takkub chrétien donte sax daañu leen wax ne sib nañ ko ndax yenn yi ci mën a sosoo léeg-léegi ngir mu ko yar ci loo xamante ni dëpp wut ak amut solo wala yu mel noonu moo xam ñaari gor lañ moo xam ñaari laneen lañ du ñuy gor moo xam ay xale lañ moo xam ay mag lañ loolu lépp dara amut solo mooy daal soxna si mu bàyyi nu mu mën a mel waaye ñëw na ci xaad yi bi nga xam ne moo fi nekk wala bu fekkee xaad yi amu fa dem na ci imaam jafe nekk wala dem na ci ki nga xamante ni moom la fa moom lañ fa teg muy doxal mbiri jullit yi ne ko kat sama borom kër dafa réer gëj nañ koo gis ñu ngi ko gëj a gis béréb jamono sàngam wax da dat bu yàgg mu laaj kookoo li nga xam ne moom la xaat xaadi boobu wala imaam jooju def mooy li mu koy njëkk a laaj yow da ngaa tànn ñu àtte la wala da ngaa tànn mën ngaa muñ bu fekkee nee na mën na maa muñ amul jafe-jafe dama la ko doon yëgal rek ñu ne ko baax na mën ngaa dem toog loolu amul problème bu ñëwoon fekk téeméeraat it yow yaa tànn loolu soxna si lor amu ci ndax moom moo dugg ci loolu waaye nag bu fekkee jàmbat na ne kat réer na gëj naa koo gis mi ngi bëgg a fukki at kenn xamutul fu mu nekk Euh, Sénégal laa ko mujj déggee wala Mauritanie laa ko mujj déggee wala Maroc laa ko mujj déggee su boobaa kim demoon doon ko jàmbate muy xaadi ba wala imaam ja da koy wax ñaar yi comme léegi tànnoo toog muñ danga tànn ñu àtte la lii la ñuy def mooy day njëkk gëstu ndax kii soxnaam la am déet bu ko loolu leeree mu gëstu ndax li mu wax wér na am déet borom këram bi nekk fi am nekk fi ndax nit ki ma jigéen mën na koo def léeg-léeg ngir bëgg a tas ca xam ngeen ne ab sëy dafa xaw a diis ci lislaam takk ko yombut waaye tas ko it nag yombut faaw bala nga koo tas war nga ko sukkandikoo ci leer bu loolu amee dañuy wax soxna si bu fekkee sart yi ci des yëpp mu ngi doon dox mooy waa ji li muy tukki tukki teewut bàyyi na fi lu mu mën a dundee bàyyi woon na fi bitig bu mu mën di dundee wala oto bu mu mën a jëriñ jële li muy dundee wala laneen wala laneen ah, imaam nii lay def wala yi boobu mu dem day koy jox ab day wut ab da koy wutal ab dig day yónnee ñu ko wëri réew moom ko yaakaare mu woo représentant ya fa nekk ne leen day wut ku mel nangam ak nangam ak nangam ku ko gis nanga nga ko bind wax ma bu toogee ab diir nag ba nga xamante ni yónnee na ñooñu kenn waxu ko dara wala gisut lu mu xam day jox soxna soosu ne ko da ngay dem toog ñeenti at laa lay may su ñeenti at yi jàllee nag danañ leen wax léegi atte bi nga xamante nii moom la ko imaam ji di atte waaye ñu wax lu ndaw foofu ñu dugal ko ci kii balañ koo saña am na lu gën a gaaw soo déggoon ñu ne kooku réer ci réewu jullit yi bàyyiwu fi lu mu mën a dunde mooy comme li nga xam ne moo gën a bari lu mu am léegi bàyyilu ko dara wala boog soxna si ne sax bàyyil na ko lu mën a dunde waaye dafa loru ci waa ji tukki jim tukki mënatut muñ loolu ndax jigéen la mënta toog noonu rek di xaar mba bëggut def lu araam su boobaa xam leen ne am na waneen yoon wuñ ko mën a jaare tas ko ci lu procédure bu gudd bi kon yoon wu gudd wi balañ ko cee jaare mooy bu fekkee bàyyil na ko lu mu mën a dunde wala boog ndaw siit wax ne man kat loru wu ma ci tukki bi mu tukki waaye nag dafa jaadut xamatuma ci moom dara ci mënu maa toog nag bu fekkee nee na ñàkk gi mu ñàkk nekk maa ngi ciy loru ndax dama ko soxla wala mu ne bàyyi lu ma lu mu mën a dunde am na yoon wuñ mën a jaare tas ko moo gën a gaaw mooy nañ ko tas benn bi ci ne bàyyilu ko lu mën a dunde ca xam ngeen ne loolu da ngeen jàng ci fiq ñu ne ci yoon yi nga xamante ni man dañ ca war a tas ab sëy la mooy soxna soo dem abandonné ko dem bàyyiloo ko lu mën a dunde niki noonu ba tey soxna soo tukki bàyyi ko fa donte diggante bi yàggut ca wane ne loru na ci bàyyi gi nga ko fi bàyyi amul tëddoog moom ca loolu xam nga àqale ci moom loolu ba tey lu ñu war a mën a jaare ba tas ko la su boobaa kon mënees na ko tas ca procédure bi yëpp duñ ci jaar loolu ñu mat a xanaa di leerale foofu it ne soxna kenn waru koo abandonné dem loolu dañ koy tere lu ëpp genn wàllu at lu juróom benn weer dañ koy tere walxaybu anha fawqa nisfi aami biduuni isniha min alxaraami la borom xam-xam yi wax moo tax ñiy tukki war nañu bàyyi xel loolu koo xamante ni da nga tukki lu ëpp loolu na nga waxtaan ak sa soxna ba mu jubóog yow ci loolu na nga xam ne bu fekkee jubóowut ak yow ci loolu bu fekkee toog na lu ëpp loolu bu ko neexee sañ naa dem ca attekat yi ñi nga xam ne ñoo fa nekkal diina ñu tas ko nañu bàyyi xel loolu cosaanul loolu mu ngi jógee ci seydina omar radiallahu taala anhu bi nga xamante ni moo nekk xalifa bis muy doxantu Omar xam ngeen ne ku ñaw la woon da daan wër ci ci ci kër yi di doxantu ak guddi dégg soxna si ara ab arab buy wayantu way wayu daw yaram waye la ca Omar déggee mooy wéet na soxna si wéet na amut kum nekkal amut ku ko wettali wax lu bare bare tataawala haza leylu waswadda jaanibu wa arraqani an laa xalila ulaaxibu wayu gudd a gudd Omar yaramam daw ba mu xëyee yónnee fa ne soxna si ma dégg ci kër gi li mu doon wax lu mu ci jublu ñu ne ko kat ci borom këram dafa bokk ci ñi nga xam ne yónni yabaloon nga leen ci xeex sangam ci mu gëj fi ñëwagut bis booba ci la Omar waral la ne day tere léegi kenn tukki lu ëpp juróom-benn weer di ko bàyyi sa soxna ginnaaw kër loolu lu ñu dugal la ci diggante bi mat nay bàyyi xel moo tax bari na nag ci jamono ji léegi tukki abandonné sa soxna ak lu la mën a bàyyi ca tukki ba léegi-léegi sax da gis ko fa am at yu bari waaye loolu jaaduwut waaye rek fu mu mën Omar dafa digle woon ne bu mu ëpp juróom-benn weer xanaa nag soxna si may la ko ca da ngay xam ne it léeg-léeg bu la ko soxna si mayee ngir bëgg maslaa des fa it da xam ne mi ngi loru bu baax a baax ci des gi mu fi des moom rek ca it mën naa dem ba mu dugal ko ci lu mu war a dugg ñu delluwaat ci kooku kon ki nga xamante ni moom la fi borom këram nekkut bi nga xamante ni xaadi bi wala imaam bi wërlu na ko gisu ko nee naa la da koy tëggal ñeenti at ñeenti at yi fan la jógee Seydina Omar radiallahu taala anhu mi ñu doon wax léegi mooy ki nga xamante ni moo ko dogaloon moo ko waraloon bu yàgg saxaaba yëpp it dëpp woon ci bu dee as gor ñeenti at bu dee keneen koo xam ne du as gor ñaari at donte sax borom xam-xam yi wuute nañ ci lool nee nañ lu mel nii àq ji tax mu jóg moo tax kenn wuru cee ràññeele diggante gor ak jullit ñeenti at yooyu la ko imaam bii may biñ ko gëstoo ba àggal ñeenti at yi nee naa la mi ngi jóge woon ci cosaan li atte bu Omar atte woon saxaaba yëpp dëpp woon ci lenn ci borom xam-xam yi ne ñeenti at yi liñ ci jublu mooy li gën a yàgg ci lu jigéen di ëmbu ndax da ngeen jàng ci téere fiq yi ñu ne leen xam ngeen ëmbul liñ ci gën a xam ñun mooy li tàmbale juróom-ñaari weer ba juróom-ñetti weer wala yu mel noonu nag xam leen ne ëmb mën naa ëpp loolu ëmb borom yi nee nañ mën naa dem ba mat ñeenti wala mu mat juróomi at wala mel noonu moo tax kon ñu jàpp ne ëmb ab diiram ñeenti at la ñooñu ñoo teg lii maanaam mooy ñoo ne moo tax kon ñu koy tegal ñeenti at yi wa amadul li sinuuna arbau aw xamsatun wa qiila sittun ajmau bu fekkee wër nañ ko ba tegal ko ñeenti at yooyu ba mu jeex ca feeñu ci na dem iddawu ji loolu lañ koy digal na dem iddawu ji lan lay iddawu kal wafaati comme ni ko Cheikh Khalil waxee rek wax taddat kal wafaati na dem iddawu ji idday ku faatu boo gisee nag ñu ne na wu mal ne kuy faatu ndax kii dëgg-dëgg faatuwut waaye dañoo at nattal rek ne dafa faatu waaye xam ngeen ni ko faatuwut boo tax lii la borom xam-xam yi tam wit lañ ko tudde mooy dañ koo rey dañoo atte ne dafa faatu waaye xam nga ne xamuñ ndax faatu naan moo tax kon biñ ko attee juróom-ñeenti weer ñeenti at yooyu ginnaaw biñ ko gëstoo gisuñ ko liñ koy digal mooy demal iddawu ji kooka nag day iddawu ji lu mën a xew moo xam bi borom këram ba di fàddu di dem ci réewum jullit bu moom gisatuñ ko seqoon naag moom dara mooy sëyoot naag moom wala sëyuta nag moom waaye ak lu mën a xew day dem iddawu ji su iddawoo ba noppi euh, ca diggante bi mu iddaw mu def li ñuy wax el ihdaad al ihdaat dees na ko dugal fii mooy jigéen gi bu xamante ni borom këram dafa faatu buy muuru dafa war a def li ñuy wax ihdaat mooy euh, wërta toiletu wërta sol lu rafet wërta takk euh, takk ay ay ay ay ay ceen yu rafet warta def xeeti tusngal ak yu baree bari waru ko def xanaa rek ngir lor rek moo war a tax mu def tusngal mooy jigéen gu mel nii kon donte sax xamuñ ndax jëkkëram faatu na am faatuwut waaye ak iddaw ku faatu lay faatu day def ixdaat su noppee soo xamante ne def na ixdaat ba noppi duñ ñam foofu waaye xaadi bi da koy nattalelaat am passé mooy day dogal si ne fase naa ko xam ngeen ne kon li ngeen ciy jàngate mooy jigéen ñi jabari jot ci yombut maanaam lay tax lislaam li daganoon mu tere ko ko ba keneen mën ko takk xam ngeen ne jafe na moo tax loolu mën nañ bàyyi xel bu baax baax lislaam xaw naa sonn ci wàllu pay yeeg yu mel noonu woyofalu ko ci benn côté gis ngeen kii yoon yu mu ko jaarale boroom këram réer na kenn gisatu ko dañu yónnee warlu ju ko ci réew moomu bind ngeen bàyyi xel nag ne fere yi ci am diggante boobu mooy bi ñu koy warlu wala yu mel noonu nag soxna si mooy ki ko war a fay bu fekkee ne baytumaal am na fi nag bu ñu ko mën a génne lenn ci borom xam-xam ne nañ ko ci génne waaye li gën a wér soxna si moo ko war a fay ndax nag kat soxna si moo ñëw sàkku ne dafa bëgg ñu dindil ko lor ji kon nag loolu moom la engagé engagé wut jullit yëpp moo tax kon li gën a wér kooku mooy ki nga xamante ni mooy ki ko war a fay mooy mooy ki nga xamante ni moo war a fay fere yi nga xam ne am na ci mooy bu fekkee crédit téléphone imaam yónnee na ko woote ci moo ko war a fay bu fekkee na jox na nit paas bu dem ci réew mooma kooku mooy ki nga xamante nii mooy ki ko war a fay bu iddawoo nee naa leen ba noppi idday ku faatu ba def li ñuy wax ixdaat buy iddaw mooy na def mal ne ku jëkkëram faatu rek dont sax jëkkëram xamuñ ndax faatu na am faatuwut waaye ñun ñoo ko rey li ñuy wax tam lañ ko def dañ ko rey su boobaa dañ koy nattaleel genn passé waaye nag na la wóor ne suñ ko fasee moom bu imaam bi wala bu xaadi bi dogalee ne kon fase nañ ko ginnaaw bi idda ji jeexee bañ bu amaatee kañ la ko borom këram di ñàkkaat mooy bu amaatee borom kër baneen koo xamante ni xamu ci dara ci mbir mi ba sëq ak moom dara foofu dong la ko jëkkëram ju njëkk ji nga xam ne bu feeñaatoon wala ñu jekk-jekki ne mi ngi dundaat wala ñu jekk-jekki ñëw ngir ci karaama noonu rek su boobaa foofu rek la koy ñàkkee loolu li ngeen ci xame ne mooy kon soxna si jàmbur moom defe naa nit ki la ko ci jotale yombut dañ koy wëri dañuy joxe ab dikk wëri ko ci ci ci ci ci fa fa mu réere bu jàllee ñu jox ko digub ñeenti at mu toog muñ dégg nga bu ñeenti at yooyu jàllee euh, ñu ñu ñu idda ñu wax ko ne ko demal iddawu idday ko faatu idday ko faatu xam ngeen ko bu dee asgor ak bu dee koo xamante ne du asgor kii euh, li nga xamante ni moom la asgor di daw rek moom genn wàll euh, moom genn wàll gi moom la koo xamante ni ab keneen la mooy koo xam ne du moom lay daw ngeen waxoon nañ leen ni fere bu ci am ci diggante boobu soxna si mooy ki nga xamante ni moom la ko lislaam di teg bi loolu jàllee nag dañ koy tas imaam day def beneen procédure bu bees mooy day fexe tas sëy boobu décider bind naa ne tas na sëy bi soo xamante ni tas na sëy bi nag xam leen ne foofu jeex na soxna soosu soxlaatut muy demaat ci imaam ji wala muy demaat ci xaari bi di ko wax la leen maanaam moom moo liibar na ci boppam mën naa demaat ay kilifaam mayee ko bu gisee keneen ku ko bëgg mën naa dem sëy keneen mooy na xam ne loolu daal mën naa dem di ngoro keneen na xam ne nekkatul ci pas-pasub jàmbur nekkatul ci buumu kenn benn jafe-jafe rek moo nar a am mooy waa ji bu fekkee jekki-jekki ne feeñaat ca loolu mën a nekk la waaye danañ wax léegi ndax léeg-léegi dana feeñaat ñu nangu ko ci borom këram bu bees bi delloowaat ko borom këram bu njëkk ba waaye li gën a bari dana feeñaat waaye borom kër bu njëkk bi day ñàkk incha allahu taala danañ ko leeral léegi soxla su mel nii bu fekkoon ne borom këram bi sëyoon naa ak moom bàggal ca joxu ko woon ak cen danañ ko jox cen mat sëkk fay ko ko mu dem dañ koy joxaale ndax yeyoo na ko su fekkoon ne nag joxu ko woon ak cen maanaam safurla bu fekkoon ne séqutoon ak moom dara jamono jooju kooku nisfu sadaax mooy li nga xamante moom la yow mooy genn wàllu cen lañ ko koy lañ koy jox geneen genn wàll gi war ngaa laaj ne lu tax duñ ko ko mottalil ndax jigéen même boo ko takkoon boo faatoo cen gi war nga koo jox mat sëkk waaye dañ naan la kat même boo duggut ci moom dara waaye dañ naan euh, ngir bañ a jël alal jàmbur lii wóoruñu lii dañ ko àtte rek ngir dindi lor dañ ko àtte ngir dindil ndaw si lor jafe-jafe bu ko mën a dem moo tax li genn wàllu cen gi balañ ko ko jox moom lu jafe-jafe danañ toog ba xool dat boo xam ne wóor nañu ne waa ji mënatu mënatu cee dund ñu doog koo jox cen googu wala ñu dem boog ba am lu leer leer ci ne waa ji faatu na loolu nag kenn xamul kañ lay doon waaye loolu it lislaam dafa màndu rek moo tax bëggul di tooñ kenn waaye nag bëggut nag ñuy tooñ kenn mooy di jël alali kenn wala yu mel noonu di ko joxe moo tax soxna soosu kon bu fekkoon ne seqagut ak moom dara li gën a wér euh, nisfu sadaax rek moom lañ koy jox su na ngeen xam ne nag yooyu bu jàllee moom jeex na bu fekkee mi ngi ci biir idda ji na ngeen xam ne kenn waratu ko dundal ci alali borom këram ndax idda ji atteb idda ku faatu la yor ca xam ngeen ne da ngeen jàng ci téere fiq yi ñooy leen kuy iddawu iddawu ku faatu li yéemu leen kooku wax nag du ko mën a xam borom këram waru ko dundal maanaam kenn wut jël ci alali borom këram ji dundal ko ci loolu masalla moo xamante ni bat na bàyyi xel waaye nag diir bi ñu ko doon wëri mooy diir boobu ñu ñu ko jox ñeenti at yooyu yëpp moom ci alali borom këram lañ ko soññee dundale ndax dañuy jàpp ne borom këram mi ngi dund ba léegi bu jeexee nag comme li ñu la waxoon rek mooy bu ñu attee lii ba noppi bu ko imaam attee ba lii jàll nag ndaw si jeex na sañatut a wax nag jekki-jekki demaat ca kër ga naan damay toog damay xaar sama borom kër déedéet loolu moo te nekk ndax loolu bu ko bi mu ko bëggee da ko waroon a wax ca njëlbeen ga nga xamante ni loolu lañ koy atteel am maa nag biir digg bi biir bi jeexagut su ko neexoon ne arrière naa ci li ma waxoon damay far muñ sama mbokkul wala nangam la waaye bi nga xamante ni nag wax na bañ atte ko li ñu ko war a jeex na la nekkatu ci kon idda ji jeex na bi idda ji jeexee dañ koy passé dañ koy créer beneen fase boo xamante nii rek mooy tax nag mu mën a am beneen borom kër borom këram boobu nag saa su seeyee moom na xam ne moom ku njëkk moom jeex na même bu dekkuwaatoo ni nag ala kulli xaal na xam ne ñàkk nag ko waaye nag ngeen bàyyi xel ci ne fase moomu ñu koy nattaleel nga xam ne imaam moo koy defal wala xaada yi bi passé mu dog lay doon passé la moo xamante ni boo déggoon ñu ne borom këram bu njëkk ba fase woon na ko ñaari fasami bu ci dolli ko ba ñetteelu pase lañ koy tuddee nga xam ne kon day araam ci moom loolu sew-sew la boo xam ne mat naa xam boroom kër bii nga xam ne moo réer ci réewum jullit ceeñ atte ko atte bu gudd bii ñu doon wax wëri ko jox ko dig boobu ñuy wax ne ndaw si demal iddawu ji idda yi ku faatu keree benn fase moo xamante ni imaam ji moo koy bind ne ko demal ba mu amaat borom kër dem sëyiwaat ñu jekki-jekki boroom kër bi feeñ ñëw wala feeñut waaye nit wax na ku ñu doy ne ah waa ji mu ngi dund loolu lu mën a nekk la ndax xam ngeen ne li ñu doon def li weesu lépp la nit ki war naa mën a nekk Touba gii rek làqu ci génn kër ñu def li ñu def lépp ci duñ ko gis lu mën a nekk la xam nga ne mën nga koo wër ñeenti at doo ko gis lu yombal bu tëjoo fenn génn doo ko gis mukk bu nëbbutoo wax ñim nekkal ne nëbbu leen ma kenn mënu ko gis moo tax kon li muxtar Cheikh Xalil wax fa in jaa aw tabayyana annahu xayyun fakal waliyayn borom kër bi jekki-jekki ne feeñ wala feeñut waaye xam nañ ne mu ngi dund ci misaal jekki-jekki na wax ak nit ci téléphone jekki-jekki ne bind na leetar joxe preuve yoo xam ne xamante nañ xam nañ ne waa ji mi ngi dund loolu moo masala la mi fuqaha yi tuddee tuddee masalatu zaatul ni ñooy niroo masalatu jaatul waliyayni yéen ñi jàng teere fiq yu mag yi muxtasar xalil wala yu mel noonu xam ngeen ko loolu mi ngi amee ci soxna soo xamante ni dafa tawkil ñaari nit ñaari góor ne ku ne nga ne ko mayee ma boo gisee borom kër mayee ma jox naa la sama kilifteef ñoom ñaar ñoo ñu jekki-jekki mayee ndoo ko ca yëgoowuñ loolu masala mu gudd gudd la kooku liñ ci lislaam àttee mooy liñ àttee ci borom soxna si nga xam ne dañ naan borom kër bi dafa jekki-jekki ñëw wala ñu jekki-jekki yëg ne mi ngi doon dund nii la demee soxna si bu fekkee borom këram ñëw na fekk na mu ñu waroon ko ba jox ko ñeenti at yi ba mu iddawu ba noppi ca amagut borom kër amut benn jafe-jafe dañaan ko dellul sa borom kër rek coow li jeex bu fekkee borom kër bi ñëw na ba idda jeeg lépp jàll fekk nañ bam beneen borom kër takk ko waaye kookoy day ab moodu moodu nekku fi nga xam ne seqagut ak moom dara ba tey dañ naan sëy boobu amut dañ koy taxawal ne ko delluwaatal sa borom kër bu njëkk ba ba léegi bu fekkoon ne ñëw na laneen lu metti am ci mu am beneen borom kër borom kër ba seq naa ak moom dara waaye soupçonné nañ borom kër ba ne yëgoon na ne kii amoon na jëkkër waaw imaam ji man na koo xam ci ay dalil war naa xam ne kii kum yàgg bëgg la moo tax mu profité woon gaaw ko takk waaye leeroon na ko ne borom kër ba mu ngi dund foogoon nañ ko ci moom wala ñu foogoon ko ci ndaw si su boobaa lu metti dana am danañ ko tàggaleek moom ci saa si delloo ko ci borom këram bu njëkk ba loolu lépp it liñ ciy dégg rek mooy soxna si jàmbur nangu ko yombut fenn rek mooy fi nga xamante ni borom këru ñaaral bi danañ ko ko bàyyee mooy bu fekkoon ne dafa ñëw fekk kooku takk ko takk gu dagan nag laa xooxuma la nag mu takk ko takk gu daganut bu ñëwoon fekk mu takk ko soxna si juróomeel dañ koy tas delloo ko ko ndax soxna si juróomeel kenn ko takk bu ñëwoon fekk ko mu takk ko ci idda mooy takk gu baaxut dañ koy tas delloo ko ko ndax loolu dëgganut bu ñëwoon fekk mu takk ko ci façon nikaax yi nga xam ne dañ koy tere yëpp bari na da ko xam ngeen ko nikaax yëpp bu mu ci mën a doon ku njëkk du ko du ko xañ dañ koy nangu delloo ko ko kon fenn rek la lañ koy bàyyee borom kërum ñaareelam bi mooy bu fekkee biñ ñëwee fekk nañ mu iddaw jël soxna si takk ko takk gu dagan laax nag wax mën a takk goo xam ne dafa daganut ba noppit sëy ak moom kooku su boobaa foofu rek lañ koy bàyyee loolu la Cheikh Xalil di junj naan fa in jaa aw tabayyana annahu xayyun fakkal waliyayni masalatu zaatul waliyayni it ci ñi ko jàngagut nañ xam ne noonu rek lay demee mooy ku am ñaari boroom kër euh, yoo xam ne comme liñ jataay yi ñu wax fii yëpp rek noonu lay deme am na ci lu xaw a metti loo xam ne mën na cee am foo xamante ni danañ ko xañ sox borom kërub ñaareelam bi force mooy buñ gëstoo ginnaaw bi yëg ne waajikat bi mu faatu moo bi ko borom kër bi di takk jamono jooju la borom kër bi mujj bi la jamono jooju la faatu nga xam ne day mel ne ndaw si ci idda la war a nekk su boobaa lu dana am dañ koy tas sëy bi ndax takk jigéen ci idda dafa araam ca borom xam-xam dañuy wax ne man istaajala shay'an qabla ibbaanihi uqiba bi xirmaanihi mooy dañ koy tas ca lu métti dana ci am mooy bu fekkoon ne euh, seq naa ak moom dara lu mu néew néew donte dafa bànneexu ci moom dañ koy tas ca dootu ko mën a takk bu mukk ba faw ndax takk jigéen ci idda danañ ko wax sax incha allah bu fekkee waxtu bi des na danañ waxtaani masala moomu takk jigéen ci idda noonu la mel ku ko def noonu lay demee bu fekkee da nga ngoro ci idda ji takk ko idda jum mën a doon idda yi ko faatu idda yi li ñax istibra jigéen goo xam ne dañoo sëy ak moom nga xam ne dafa war a toog ba am ay régal ñu doog ko takk idda yi janeen jum mën a doon ku ci takk soxna séq ak moom dara dañuy jëflante ak yow ci safaan bi li nga bëggoon mooy dañuy tas sëy bi ba faw dootoo ko mën a takk ndax dañuy wax ne man istaajala shay'an qabla ibbaanihi uqiba bi xirbaanihi am na masala muy faral di am lu bare bare ci ci ci ci ñu bare mat nay bàyyi xel da ngay gis sax ñu koy àtte ca duñ ko seetlu soxna soo xamante ni dafa nekk ak xale bu góor ku bëgganteel ba ba mu tollu diggante xam leen ne soxna soose li ñuy wax istibra lay def moo ku iddaw ñoo bokk àtte ñu jekki-jekki rek lëmas lëmasal may ko borom kër booba loolu nangeen xam ne borom kër booba danañ ko tas ca dootu ko mën a takk bu faaw ndax day mel ne moo ku ko takk ci idda ñooy lu baree bare lu ñu am la mën nañ bàyyi xel bu baax a baax ñi dañ koy def ñenn ñi dañ koy laaj ñenn ñi sax léeg-léeg nga tontu ci nit ba àggal waaye da xam ne ñéeg na waaye lam la nga ko waxoon bàyyiwu ko ca loolu des ko def jigéen ku lu mel noonu bu ci amee lii lay àtte ba kee da doon njaaloog moom bàyyi ko ba mu am doom am alal aqal ba istibra gi jeex ndax bu amee doom loolu jeex na su boobaa nag ñu doo a xool beneen atteem waaye nag am maa di ko may noonu ci biir jamono jooju kenn ko def ndax jigéen gi jamono jooju mu toll kenn waru koon takk bari na nag macha allah loolu lu muy am loolu mat nañ koy bàyyi ala kulli xaal soxna si ñu doon wax nga xam ne mooy soxna si mafxuut ci réewum jullit dana takk soxnaam maanaam dana donn soxnaam soosu nag loolu mooy li nga xamante ni moom la boroom xam-xam yi wax koo xamante ni yàlla dogal na amoon nga soxna yu bari am ñetti soxna lu mel nii dal la wala ñeenti soxna réer xam leen ne àtte bi ci kenn ki rek mooy atte bi ki ci des mooy kenn soxna si bu fekkee moo dem boole ko boole ko imaam ne ko sama boroom kër dafa réer nangam ak nangam ba imaam jaar fii ma wax nii wala xaadi bi diggante boobu feek dat bi jeex ku jógaat ci soxna yi demaat kalaame ji xam leen ne àtte bi benn la mooy imaam du ko beral atte boppam comme mokkee ñoo bokkoon borom kër rek benn la loolu la Muxtasar Xalil di ñu naan wa darbun li ne benn la rek atte bi benn lay doon waxuñ nag ñu bàyyi ba kay amaat borom kër kaneen doog a feeñ su boobaa kon koy joxaat atte boppam waaye nag diggante mooy boo xamante ni yëfi jeexagut mooy mi ngi ci biir dig boobu ku ñëwaat di boole benn la atte bi benn rek lay doon loolu mooy ki nga xam ne mooy mafxuut ci réewum jullit kooku nag loolu nag day mal ne mooy li gën a bari mooy li gën a bari la mu am bu ngeen ko seetloo moo tax li ci aju gën naa gën naa gën naa gën naa yaatu xanaa rek liñ ci dolli foofu mooy danay am lu mel nii lu bari danay atte la yoo xam ne danay am euh, lii nag am na ci loo xam ne dafa dëpp dafa lëkkaloog dund gi euh, am na sax ci lu ci rek koo xamante ni boroom këram defe naa dafa réer wala yu mel noonu kenn gisatu ko daal defe naa ak wéree dee tax mu réer nag euh, bi mu ñëwee dem dem mënut a muñ dëgg la kooku lislaam may na ko comme bàyyeelu ku lu mën a dundee ñu mar na mënees na koo tas xam naa dem nañu tas ko waaye nañ sëye woon ñoom ñaar day sëy boo xamante ne dafa am ay kayit ak yooyu kooko jekki-jekki feeñ wala yëg ko ñëw yóbbu ko ci yoon ba mu demee xam ngeen ni yoon lim ko atte rek mooy yoon yi ci des nag laax da ko yóbbu ci tribunal yi ñu attee ko ne ko jabari jàmbur ju xaw a tas nga xam ngeen ne ca loolu lu xaw a diis la maanaam teg ci daan yu cher waaye maa ngi fàttaliku mu waxtaan ak kenn ci borom xam-xam yi dëkk bi ku ku xaritag waa Muxaddamatul Xidma bii sax la kooko jox ko xel mu rafet ne ko comme lii la lislaam digal lii la biñ ci waxee ma ne ko lislaam digal na la nga tas loolu moom pexe amul mën ngaa tas comme bàyyi looloo mën a dunde jërul sax at ak ñetti at bàyyi mën a dunde wala yaa ngi ci bàyyi gim la fi bàyyi nañ nañ tas ko ci loolu waaye nag comme yemoo woon yow tam ci lislaam noonu rek booba dangaa demoon sukkandiku bi ngeen di séyandi ci kayit na nga fexe ba yoon nam la takkee woon yoon woowu nga dem yoon tas la noonu ci benn borom xam-xam ndeysaan mook ko conseillé ca loolu baax na ndax defe naa ne gis nañ keneen koo xamante ni defutoon ko waaye jëruloon na ko musiba kon loolu la ñuy conseillé ku mel noonu rek koo xamante ni kayit wu mel noonu nga amoon talaax bi nga xam ne wax nañ ko léegi ne naka ko imaam kereel bind wane ne tas naa sëy bi naka ko ko ku mel noonu ku ko amoon ci kayit na góor góorlu kon ngir bëgg a set ngir ak ngir bëgg a bañ a amaat borom problème na di fexe ba kayit yu mu amoon waree ne sëy naa ci ne dem amaat kayit woo xamante ni tas na ko loolu bu demee ci ñi koy àtteekat yi incha allahu danañ ko ci àttee. mu des ba tey keneen koo xamante ni dafa réer ki doon wax mooy ku ci réewum jullit ku ci réewum shirk ardu shirk kooku lan mooy àtteem dañ ci charte rek charte bi ñu waxoon ci ku réer ci réewum jullit. mooy na na ko bàyyi lu mën a dunde ca ndaw si bu mu ne loruwuma ci bàyyi gi ma fi bàyyi ca bàyyi ca sequt ak man dara waaye bu fekkee loolu lépp abul waaye dafa réer ci atte ci ci réewum yéefar kooku moo gën a metti ab atte dañuy xool li nga xamante ni moom la ñu wax sinnu taamir ñu ñu ñu ñu nattaleel ko waa ji feeg jàllut ndaw si du saña dem sey ak keneen ku tukki woon ci réew moo xam ne réewum yéefar la yàlla dogal borom këram réer na kenn mënatu ko gis mu dem boole ko ba mu ko boolee euh, duñ ko joxal duñ ko jox ab dig duñ ko jox dara mooy dañuy xool li nga xamante ni moo gën a bari ci lu nit ki mën a dund mooy dañu xool li nit ñi jàpp ne moo gën a bari ci lu ñu dund lool lañ koy nattaleel feek jàll du mën a dund loolu nag lu metti la euh, boroom xam-xam yi dañ cee wuute am na ñu ne juróom-ñaar fukki at dañuy bàyyi ba waa ji dund lu mat juróom-ñaar fukki at mu doog a jàll am na ñu ne juróom-ñett fukki am na sax ñu dem ba ci téeméeri at waaye xam ngeen ne loolu lu metti la moo waral si naa mën a laaj lan mooy différence su ñaar ñi soxna see ñu yombalal ko mbir yi may ko ñeenti at rek atte ko kii ñu ne ko déedéet yow da ngay xaar ba mu dund ba mu dund li jaadu ci ab jullit war koo dund bàyyi xaar loo ko juróom-ñaar fukki at bokkuñu réewum jullit néew na ab lu muy tëjee jàpp otage ab jullit ne moom ko tëj loolu bëriwul lu muy am te bu dee réew yéefar yi mën naa am mënees na ko jàpp tëj ko wala yu mel noonu ci kooku moo tax ñu koy bàyyi diir bu mel ni loolu fuqaha yi loolu la ñu wax foofu kon ku mel noonu koo xam ne dafa réer ci ardu shirk ginnaaw bi nga xamante ni dem na ba kalaame ko loolu moom lu metti la ko xaadi bi di atteel mooy danaan ko da ngay xaar nag dundub taamir dundub taamir nag li nit ki gën a bari lu mu dund borom xam-xam dañ cee wute wa huwa sab'un waxtaara samaanoon comme ni ko Muxtasar waxee wa xukima bi xamsatin wa tis'in am na ñu ne juróom-ñaar fukki at la wax ak mi ngi ko sukkandikoo ci lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amaaru ummati min as-sittina ila as-sab'in loolu it ni muy demee dañuy xool borom kër ba bu fekkoon ne juróom-benn la am bi muy dem nañ ko nañ ci am ci lu wóor nag juróom fukki nga ko ci tegal ne dee na doo ko àtte ne dee na bu fekkoon juróom-benn fukki at la am ak juróom-ñeent ci wax jooju waxi Malik ak Ibnul Xaasim benn at rek nga ko ci tegal àtte ko ne ko kon mënees naa tas sëy bi waaye loolooy loolu maanaam mooy. dañ koy atteel ci li nga xamante ni mooy li ab jullit baaxoo dund loolu nag nee naa la am na ñu ne juróom-ñaar fukki at la moom la Malik wax ak Ibnul Xaasim Cheikhaan muy euh, Xaabisi ak Abu Zayd al Xayrawaani ñoom yokk na juróom-ñaar fukki at am na it ci jamonoy baaj yi ñoo xamante ni dañ ne mooy xam sun wa sabiin mooy mooy juróom-ñaar fukki at ak juróom ala kulli xaal euh, loolu. loolu mooy ki nga xamante ni dafa réer ci suufus loolu mooy ki nga xamante ni dafa ci suufus kéefar bi nga xamante ni dem na boole ji ca ñu gëstu ne bàyyi lañ ko lu mën a dunde ñu gëstu ni amul benn lor dañ naan ko kat yow dañ lay xaarloo liñ lay xaarloo nag boroom xam-xam yi bu dee ci mësab Malik juróom-ñaar fukki at lay doon ndax loolu mooy li ci gën a siiw mooy mazhabu Ibn Malik Ibnul Xaasim ñu ngi ko sukkandikoo ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne amaaru ummati bayna sittiina ila sab'in nga xam ne day mel ne mooy dund gi nga xamante ni moo gën a yem day mel ne lu ko ëpp kon rek euh, lu bëriwut la waaye li gën a bëri kon diggante boobu ci la yem ala kulli xaal loolu mooy atte bi loolu mooy atte bi niki noonu ba tey ab prison koo xam ne dañ ko jàpp tëj ko ci réew yi yéefar yi nga xam ne ab la boo xam ne ab xeex dafa amoon ñu baree bari nee nañ atte bi benn la mooy lu mel noonu rek lañ koy jox euh, ku mel noonu bu fekkee dañoo wute woon ci atam ñii ne juróom-ñaar fukki at lañ koy attee ñu ne juróom-ñeent fukki juróom-ñaar fukki at ak juróom li ngay njëkk a kii bala koo attee danaan ñaata at la amoon kii nee na juróom-benn fukki at keneen ñëw ne déedéet juróom fukki at la am ngir bëgg lu gën a wóor. at yi gën a néew lañ koy jox moom la ko xaadi bi di jox ñu xool la ca des waaye nag xam leen ne lii moom lu xaw a metti la mat nay bàyyi xel waaye alhamdulilah xam naa bëreetut loolu ndax euh, macha allah daal bëreetut xëy na ndax réew yi jullit yi réew yi am léegi même yu ci bare bu fekkee dañoo nekk ardu shirkit waaye bokkut ak ardu shirk yi ñuy wax ndax réew la yoo xamante ni da nga fay duggee ci visa da nga fay duggee ci garantie mooy nekkut foo xam ne dañ fay rayante daal jullit ak yéefar am xeex dafa am lislaam ak kii àtte euh, am fa ndikki noonu ba tey am na keneen beneen ñaar ñu réer ñi kon ñu ngi noonu am na ñeneen ñaar ñu ci des ñoo ci gën a yomb ay mbir mooy ñi nga xamante ni dañoo réer ci ab xeex ab xare xare ba nag wala iyaasu billah léeg-léegi xare lay doon bu nekk ci diggante jullit yi wala iyaasu fit na danay am léeg-léegi fàttaliku leen bu yàgg lay amoon waqaatul xorra xam nga li amoon waqaatul xar li amoon loolu yi fi amoon ci ginnaaw ku neexut a tudd ndax am na ci loo xam ne ci diggante ay saxaaba yu tedd ci la amoon waaye fitna daana am ci diggante jullit yi xam ngeen ne fitna yi daana tax ba ay jullit faatu fi léeg-léegi eh, xewoon bare na ci yu mel noonu waaye bu fekkee mel noonu ci la nit ki réer yomb na saa yoo xamante ni dem nañ ba guerre bi ne tekk jeex gisuñ ko nay daw mu jeex jàppale dañ ko rey amut beneen ixtimaal amu ci dafa dañ ko rey ngay jàpp feeñut mi ngi woon ci xare bi diggante jullit ak jullit jàppale dañ ko rey rek ca diggante boobu day iddaw rek mu jeex alal mashhur lenn ci borom xam-xam yi nag donte donte bokkut li nga xam ne mooy li gën a siiw ci mazhab Malik nee nañ ku noonu danañ ko defal li ñu wax talawum waaye loolu jàppale ne di lu gën a wér li gën a wér rek mooy day iddaw bu pare ñu donn ko mu jeex ndax jefe naa nag lu mel noonu néew na lu mu amee dem nga dem ba weesu waa ji di feeñaat dañ ko rey rek jàppale dañ ko dañ ko rey am na it kum niroolu jafe-jafe bu fekkoon ne dafa am mbas am fenn cim réew wala iyaasu billaahi taala wala feebar bu metti wala waba waba nag nañ ko leeral daana am bari na daanay am lu bari mos jàpp Sénégal gi sax daana fi am ay jamono li tax dëgg dëgg ñu naan waba nag mooy peste boobu ngeen fi doon dégg tam amoon fi boori li jiitu 1920 boori 1918 defe naa ba ci ca yàgg lool ci ñu bari bari jël leen fi lu méttee métti lay doon loo xam ne bu ñëwee mbooloo lay reyandoo mbooloo mu dut jeex te benn pexe mu ci daanaka day mal ne kum dal dalay rey looloo taxoon ba yonent bi sallallahu alayhi daan wax naan fu mu am bu fa kenn dem ndax loolu musiba la daanaka yàq ko xaru yéen yem ku nekk foo xamante ni am na fayit bu fa jógee ndax boo fa jógee mën naa am feebar bi dal na la ca kenn amu ci benn solution boo demee da nga ko wàll ñeneen gis ngeen Seydina Omar radiyallahu taala anhu ci ay jamonoom cam amoon ci lenn ci am saari ci dëkk yi wabaa bi am baray lenn ci aji laa saxaaba bam ba mu dem gouverneur ba mu fa nekk da ko bind leetar ne ko bul agsi fii wabaa am na fi nangam nangam ma Omar jëfandikoo ci li ko lislaam digal toog ci frontière bi la yem mooy dafa ñëw ba fi ñu fi nga xam ne ak duggut ca région boobu fa la toog xam naa yónnee la muy yónnee delluwaat ku yàlla dogal nit yàlla nattu la wabaa bu mel noonu am ci am fenn wala lu ni mel wala nga nekk ci ay jamonoom kooku ba tey atte bi moo kii rek ñoo yam bu ñu demee ba gis ne mbas moomu xaw naa dal ñu xool koo xool gisatoo ko jàppale looloo ko rey rek mu jeex gis ngeen bu njëkk sax bi muy am fii Sénégal li ñuy wax peste la tuddoon mais bu lu metti la woon euh, ku mosaa dal dañu lay ber rek bu faatoo ñii daanañ leen suul wala yaasu billahi taala am na ci ñoo xam ne sax dañ leen daan bàyyi noonu rek sànni leen ndax néew yu bari yi bëpp nga xamante ni daan leen dajal di leen denc ñoom waaye kooku ba tey àtteeb soxnaam noonu rek la demee bu fekkee jeex na xool nañ gisatoo ku gisut sa borom kër jàppal ne rek jeex na jërul xaar leneen mu des kade nit ku réer koo xamante ni dafa réer ci xeex bu am diggante julli di ak yéefar yi loolu mën naa am danay am léeg-léeg lu bare bari loolu sax defe naa ku ne xam na ne moo ëpp lu muy am kooku lan mooy àtteem dañ imaam ji wala xaadi bi da koy jax ab dikk ab at mu mat sëkk da koy wërlu ndax geer bu am diggante jullit ak yéefar yi ndax mën naa am dañ ko lottal mu ànd ak jullit yi dem ci kenn gisu ko am na ixtimaal beneen bu am bu ne it ne mën naa am dañ koo rey mu dem ci kenn gisaatu ko waaye kook kon àtteem xam leen ne mooy dañ koy dañ koy dañ koy at la ko imaam ji di may wala xaadi bi bu jàllee rek dañ koy bàyyi dañ la ko iddawul bu iddawoo bu àggalit na dem ami na dem ak borom këram boo gisee nag masaayil yu ñett yu mujj yooyu yëpp andi wuñ ci nekk naan bu borom këram feeñee ak nangam ak nangam daanaka rek euh, xel li muy li muy li muy maanaam maanaam euh, aada li muy wuute bariwut ku mel noonu moom daanaka néew na lu muy amee borom kër bi di feeñaat toujours rek jàppale dafa faatu maanaam la ngay teg ba ne faatu dana jafe moo tax su boobaa nag day jàpp day mel ne ko bu borom kër bi ñëwee nag day xam ne donte jafe na day jàpp rek nag lii moom at lislaam atte la muy atte ba noppi bokkut ak kee nag kee moom lu mën a nekk la këram feeñaat moo tax ñu bàyyil ko occasion bu fekkoon ne dem na ba ñëw ñu ne ko léeg-léegi da nga ci jot léeg-léegi ñu ne ko doo jot kon mafquud ñeent yooyu ñeenti façon ixtimaal yooyu la am kuréer ci réewum jullit wax nañ li nga xam ne moo ci am lépp moo ci gën a bari procédure nee nañ bi nga xamante ni dem na boole ji dañuy dem gëstu ji ndax li mu wax dëgg laam déet gëstu ndax bàyyil na ko lu mu mën a dundee ak ndax man mën na ko mu ñoom déet bu loolu jàllee rek dañ koy jox dig boobu nga xamante ni nee nañ ñeenti at la bu ñeenti at yi jàllee comme li ñu waxoon dañ naan ko iddawul comme idda yi ko faatu donte sax xamuñ ndax faatu naam déet waaye dañuy àtte ne rek li ñuy wax wit dañ koy rey bu jàllee ñu ne ko atteel ko bindal ko benn kayit boo xam ne ci tegtal ci ne fase nañ ko fase goo xam ne imaam moo koy bindal su boobaa mu dem sëy mu dem mën naa dem sëy ci keneen ko neex boobu nag lu ne mën a mën naa continuer mën naa tas wax naa leen léegi ne bu fekkee borom kër bi ñëw na léeg-léeg moo li ñuy wax moom masaltu zaatul wali yi ñooy yem bu fekkoon ne ñëw na fekk ne mu iddawu ca sëyut ak keneen amul benn problème borom kër bi ci lay dellu bu fekkoon ne mu ñëw it fekk mu iddawu ca sëy ak ca keneen takk ko waaye seq gu ak moom dara ba tey dañ koy delloo bu fekkoon ne ñëw na ba tey keneen takk ko takk ko takk goo xam ne baaxut ba tey dañ koy delloo borom kër bu njëkk ba takk ko takk goo xam ne lislaam mayewu ko bu fekkee ne ñëw na it borom kër ba takk ko waaye tuumaal nañ ko ne xamoon na ne borom kër bi dafa feeñ ba tey dañ koy delloo wax nañ leen it ki nga xamante ni mooy kuréer ci réewum yéefar wax nañ leen li nga xamante ni moo ci am loolu moom moo ci gën a métti ay mbir wax nañ leen différence bi nga xamante ni moo am ci diggante ñaar ñooñu mooy ab jullit mënees na ko nëbbu léeg-léegi bu dee ci réewum yéefar waaye bu dee réewum jullit kenn mënu ko nëbbu kenn mënu kenn ko jàpp otage moo tax réewum jullit dañ mënees na ko moo tax ñu atte ko atte bu mel noonu bu dee ci réewum yéefar nag moo tax ñu naan euh, mën naa am dañ ko tëj ca koo tëj mën nga ko tëj sax juróom-ñett fukki at mën naa am mi ngi dund moo tax ñu koy jox dat bu yàgg boobu nga xamante ni mooy juróom-ñaar fukki at ak wax nañ ko ñii ne juróom-ñett fukki at ñi sax yóbbu ko ba ci téeméeraat ñii ne juróom kii fukki ak juróom waaye alaa kulli xaal bu loolu jàllee day iddawu at yi dañuy xool li ci gën a wér rek bu fekkee wuute nañ ci at yi mu amoon at yi mu amoon moom ngay dolli ba mat loolu bu fekkee wute nañ ci nañ xool ki nga xamante ni moo gën a néew ay at rek kooku ay waxam la ñuy dégg la ñuy déglu waaye ala kulli xaal bu jógee ci loolu day dem iddawu ji bu iddawoo ba noppi nag mën naa dem sëyaat ak keneen kuréer cib xare moo xam diggante ay jullit la wala moo xam diggante jullit la ak ak ay wala yaasu billaahi taala wala kuréer ci jamonoy mbas wax nañu leen léegi atteem bi nee nañ bu coow li jeexee rek nga dem idda iddawu ji la xew-xew ba bu jeexee na dem iddawu ji kuréer ci réewum yéefar xeex boo xamante ni ci diggante jullit ak yéefar la woon soxnaam wax nañ leen léegi ne dañ koy imaam ji wala xaari bi da koy may at mu sëkk bu jàllee mu mu dem iddawu ji bu iddawoo ba noppi nag jeex la kon masail yooyu mooy yi nga xamante ni mooy yi aju woon ci al mafkuut mooy ñeenti xalaat yooyu ñu yokk ci nag yeneen masail yoo xamante ni du ma ne ci mafquud la waaye sorewuñ ndax masail la yoo xamante ni ci nikaax la jëm Euh, jege nañ ca mafqud mi ba daanaka rek buntu la bokk ci baabul nikaa wax naa leen ne foo ko fekk ulama yi bu baabul iddat jeexee ci lañ ko sosale ndax ahkaam yi ci aju yi ci ëpp lenn li ci ay miraas lay doon waaye yenn ci wàllu idda lay doon am na lu ñu tuddee góor guy iddawu lu mën a nekk la góor danay iddawu léeg-léegi góor guy iddawu boo ko déggee mooy ci misaal ku yoroon ñeent soxna wacc kenn ka ñeenteel ba kooku lañ tuddee góor guy iddawu xam nga da nga koo wàcc li ñu tuddee fasam rujax yi bu fekkee mën nga ko wàcce na nga ko fasam bat fasam moo xamante ni mënta kayan dootu ko mën a takkaat boo ko wàccee fasam rujax yi loolu la ñu tuddee góor gu iddaw takk beneen soxna ndax bu takkee beneen soxna dañ naan ko ab juróomeel nga ndax jàngeen borom xam yi ne nañ war rujax yeetu ko zawja soxna sa rujax yi ndax feek idda jeexut mën nga koo fay mën nga ko jëlaat moo tax kooku bokk mooy masala mi nga xamante ni góor da ci iddaw ku yoroon ñeenti soxna tey ci misaal wàcc kenn ki sëñta takkaat beneen soxna ca idda yi ñeenteel ba jeexut bàggal ndax ñeenteel ba bu fekkoon ne da koo wàcci waccim waccim waccim euh, rujax yi ca loolu moo gi li gën a bari ci pase yi sañoo takkaat beneen soxna ca idda jooju jeexut nit ki doonu ba tey meneen masala moo xamante ni danay wàcc lu bare bare bari moom la maa yi tuddee masalatu zaatu sikkiin euh, lu war a mën a nekk la jigéen koo xamante ni dangaa toog dégg sa soxna yaa ko yeddu dégg ko wala nga dégg ko ci vocal mën naa nekk léegi ak vocal yi ni mu baree mu wax luy tegtale ci ne wàcc na la fasam baa in wàcc na la kii yoratuma ko fase naa ko fase mu dog dama ko rus wala damaa nangam rek waaye bis bu rafet laa xaar wala damay bàyyi ba tukki mu dem xam nga mën naa nekk nga nga ku war gi léem envoyé ko ci vocal sa soxna dégg ko wala nga yeddu di ko wax ak nit mu mi ngi lay dégg soxna soosu lañ tudde zaatu sikkiin kooku li ko lislaam digle digal dafa araam muy jegeenteeg borom këram boobu da dafa war a rayanteeg moom su ma bëggee tisqeeg moom bu mu dëkkateeg moom ci benn nekk na génn tàggook moom. comme li mu wax amut preuve bu dégg ko doy na ko waaye xëy na bu demoon ci xaade bi ci mën a sukkandiku waaye ala kulli xaal na ko moytandiku ci bis boobu sañu waratu seqateeg moom dara waratu tuwaale ci kanamam même bu fekkee bokk naa moom kër. waaye nag lenn rek lay jéem mooy dem wax ko imaam imaam li mu koy atteel mooy tas moom faaw nag am fu mu jaar. bu fekkoon ne dégg na li kee wax amul benn jafe-jafe wala yu wala boog doy na ko la mu wax waaye nag li mu koy digal mooy li ñu wax fi daa mooy dana ko demal indi dara loo indi rek ma jox ko sa borom kër bi mu wàcc la lool la bor ulama yi tudde alxulon loolu lañ tudde masatu zaatu sikkin danay am lu bari bari jàpp naa ne nag bari na lu muy am ci jamono ji ndax man nit dëgg laaj na ma ko nit uh, laaj na ma ko wan na ma ko sax koo xamante ni borom këram xam naa rek daa doy waar jëw na ko ci audio koo ko transféré ko ne ko kii de naa ko seereel naa ko diw ak diw waxaguma ko nag uh, wala boog du ma ko ko wax damay bàyyi ba def nangam nangam damaa rus wala daa bari pexe nangam ak nangam kooku loolu lañ ci wax kon na bàyyi bu mu ci kanamu kiyam force it dafa war a fexe ba tàggoog moom ndax sañatu waratu te nekk ak moom ndax kee moom yoratu ko ca moom leer na ko digganteem ak yàlla niki noonu ba tey charte yoo xamante ni danay faral di am ci sëy lu baree bari donte lislaam rafetalu ko am xëy na réewum Sénégal mën na fee bañ a bari defe naa sama mbokk mi ami ami nu suuf yi mii suñu euh, xam naa xam na ko mooy soxna soo xamante ni bi ngay takkanteek moom da nga ko wax ne ko laa saabiqata wala laaxiqata ca bu amee rek kon damay tas sëy bi day tas mooy bu ma bu duma fa fekk kenn ci ay soxna waaye nag kenn du ma fekk nii lay demee bu fekkee da ndaw soxna si da ca sart ne ko bu amee damay tas lu metti metti donte sart boobu dañ ko araamal cib sëy waaye nag sart boobu day wéy booy takk keneen sëy bi di tas muy tas waaye am ruuxa bee dixaay bu demee ñu tas ko sart bi nag baaxut kenn waru ko dugg cib sëy lislaam da koy tere baaxut yonent bi daan sallallahu alayhi wasallam daan wax ne kullu shartin laysa fi kitaabillahi fahu baatil waaye nag ah bu amee yamd yi day day day wéy boo amee nga aj ko ci ab passé day wéy pexe amu ci waaye nañ koy moytandiku surtout sëy yi nga xam ne ñu ngi koy fase ci jàkka yi nañu moytandiku du ci dudd sart yooyu xamoon nañ suñu sëriñ bi ñu daan jàngal euh, maa ngi fàttaliku ci mu ci mujj jekki-jekke woon na ne ndax sëy foofu yi ci bare bare dañ ci dañ ciy waxaale loolu léeg-léegi waaye mos naa wax ne de moom ci jëmmam de dootu ko waxati ci ci fas ndax du dagan kenn wur ko wax lislaam da koy tere sart boobu daa ne nag surtout sëy bu ñu fas ci jàkk ndax sëykat bu ñu boo koy fas ci jàkk nee na bàkkaar boobu moom bëggu ci doon dara loolu kon bàyyi bàyyi loo xel nit ki noonu ba tey am na loo xamante ni boroom xam-xam yi dañ koy wax dañuy wax ne képp koo xamante ni sëy ak moom dafa araam takk ko dafa araam loolu xaangi da la boo xam ne ñetti masala yi rek lañ ci settee jigéen saa yoo xamante ni séy moom dafa araam fas ko dafa araam ma jox la misaal jigéen ju iddaw séy moom <laughs> dee su ko def gaa yaakaar naa keneen ndax mënees ko séy moom keneen xanaa njaaloo la soxla ñu tudd waaye kenn séy moom takk ko dafa araam jigéen waaye nag am na masala yu ñu ci seet settee qaida la boo xam ne jigéen gu am régal mooy ki nga xam ne séy ak moom dëgganut ca mënees na ko takk jamono jooju jigéen guy kaaf xam ngeen ne jamono jooju kenn mënta sëy moom fekk lentikaaf yi bi jeex waaye takk ko mën naa nekk nekk noonu ba tey euh, kon mooy loolu jigéen saa yoo xamante ni dañ ne ku ko takk sëy moom takk ko dafa dafa takk ko dafa araam xaanida boo xamante ni am na ci masaayil yëpp mooy koy iddawu ak jigéen gu ñu tere ku sëy moom rek takk ko dafa ba mu des rek kuy lentikaaf wala koo xamante ni da amee demel xayd wala yu mel noonu su boobaa kooku dëgg la kenn mënta sëy ak moom ci jamono jooju waaye mën mënees na koo takk ki noonu ba tey li ñu tuddee talaaqul xaayit ku am régal baaxut loolu bokk na ci faseem daa fase yi nga xam ne dañ koy bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy jar bi tax ñu koy araamalit day guddal idda foo ko fekk ndax jàng yéen ci téere yi fiq yi ñu ne leen jigéen bu fekkee mi ngi iddawu xam ngeen ne nga fase ko ci biir idda bu fekkee da nga ko fase ci biir idda mi xam ngeen ne gu idda ji dana yàgg ndax ñetti pasele ñetti laab lay toog moom mu talxaate tarbasla bi ko ci compté wàlle day bàyyi ba idda a kon tàmbalee compté nekk benn kon da cee am ñu baree la yonente bi salaa salaam da koy tere Seydina Omar radiallahu taala anhu naa ñëw ci yonente bi ne ko sama doom Abdullah ibnu Omar dafa fase soxnaam ca dafa nekk da doon iddawu yonente bi mer lool ba soppiku xaw koo wax ak moom kaddu gu diis ne ko diggal ko ne ko na ko dem fayle ji téye ko su ko téyee nag ba mu laab ba amaat ragal su laa baatee su ko neexee ne ko wàcc su ko neexee ne ko téye loolu mooy àtt bi kon jigéen ku ko def it xaakim ba fa nekk war na laa digal forcé la ne la nga dem fayle ji ko ndax ko def def nga lu araam loolu nag li muy gën a tegtale ci ne mooy kon euh, taabudi la lu mettit am na ci nag loolu li muy nekk nekk taabudi li ñu koy tere tere teewut fas mi dana am ku ko def it nag da xam ne pasam daañu ko boo ko ne am nga ñaari passé bu dee ñetti yoon moom day gën dem ndax amatul njëriñ ndax dootoo ko a tey a sérieux moo tax ak lu a demee moom dañ naan nangam ak nangam pasem bidaa la ak pasem sunna la waaye teewut dana fasu ca passé mu fasu mooy da koy compter boo nekkoon fase naa la compter nga ko nga toogaat ngeen xuloowaat nga ne ko fase naa la konte nga ko nga toogaat ngeen coow amaat nga ne ko fase konte nga ko ndaw si day génn dem sañutoo ko yoraat bala nga koo sañu yoraat rek il faut que keneen ñëwaat yor ko ak loo xamante ni bariwut lu muy am jigéen boo ko fasee wërte génn ci kër gën ko fasee ba idda ji jeex xam naa koo ko wax dana ko jaaxal lool jigéen ñi fii waxuma la fase waaye bu ko xelmatee ay bokkam ñoo koy njëkk a jël si ñëw dajji bagage yi daj rido yi dajji bagage yi yóbbu waaye loolu safaanoo na ak lislaam aada la joo xam ne néew na ñu ma gis ñu koy def gis naa nag benn dëkk bu koy def du ci réew mi falaak waaye néew na ñu koy def sax ci àdduna si jigéen boo ko waccee dafa war a nekk ca kër ga nekk ga ca kër ga nag dalay mooy dalaa war a moytandiku waru leen seq dara ndax nekkatul sa soxna bu dee fasam rujan yi waaye xam nga liñ ci jublu mën naa am sa diggante bi sa xel nekkaat ci wala ngeen jubawaat ba nga yoraat ko te xam ngeen ne fay la yomb na fay la yomb na da ngay yéene rek mu jeex seede sax dañ ko sopp rek wunu dibal ishaadu comme ni ko muxtasar xalil waxe moo tax loolu bariwut lu muy am nag waaye ku ko mën a defit moo gën loolu lislaam digle ku fase nit fasem rujon loolu noonu kii la loolu moom moom sañ nga koo téye maanaam wërta kër ga moo kuy iddawu ci ku faatu rek ñoo bokk àttee kuy iddawu ci ku faatu sax ma alhamdulilah ñi ñaa ngi koy def moom ba léegi duñ génn kuy iddawu ci faatu sax dafa war a toog même bu fekkoon ne dañ ne boroom kër ba sax dafa luyee dañoo war a fexe ba wéyal luyaas ba ñeenti weer yi ak nangam yooyu nga xamante ni ak fukki fan yooyu nga xamante ni mu ngi koy iddaw wala ñaari weer ak genn wàll bu fekkee koo xamante ni du as gor niki noonu ba tey jigéen bari na loo xamee masaayil yoo xamante ni bu amee sañ na cee sakku am passé waaye ngeen xam ne passé moo xamante ni xaakim moo ko waral xaakim mooy xaadi bi wala yu mel noonu mooy ñiy dogal nga xamante ni boo ñëwee ñoo lay atte nga tas fase moom kenn du ko tuddee fasem rujan yi fasem rujan yi bokkut ak fasem mu xaakim atte xaakim fu mu leen xàjjalee fasem baa in lay doon fasem baa in mooy loo xamante ni bala ngeen a sañ a àndaat dañ condition yëpp lay jaaral ndaw si da koy neex mu d'accord ndax xam nga mag la léegi nekkatul xale fasi sëy dañ koy joxaat ak cen dañ koy ama day amaat ay seere dañ koy mayewaat day am kilifa xëy na rek différence bi ci am mooy bu fekkoon soxna si kuñ séqaloon dara la su mag la su boobaa kenn dootu ko forcé ko mayee mën naa xool koo xamante ni moom lay jox ak kilifteefam loolu mat nay bàyyi xel waaye tam jigéen nit ki bu fekkee da koy lor sañ naa dem sàkku ji am fase ca su boobaa xaakim bi bu gëstoo ba xam ne loolu lu wér la wala xaadi bi da koy tas ca bu ko tasee fasem bàyyi lay doon bokk na ci bu fekkee da koy lor di ko xas di ko wax wax ju ñaaw bari na loolu lu muy am léegi léegi-léegi wala mu di ko xas di xas ay waajuram wala mu di abandonné ko li ñuy ambargo ko jekki-jekki nangootu ta wax ak moom lu yàgg-yàgg-yàgg ba ndaw si mënatu koo muñ nangootu ta wax wala mu jekki di ko tooñ di yàq alalam borom kër bu àggeeg soxnaam foofu waaye nag li ci am solo rek mooy soxna si eh, na indi preuve luy tegtale ci ne lii am na ndax it nag góor ñi bëgguñ ni tooñ waaye ñoom it bëgguñ kenn di leen tooñ moo tax bu fekkee andi na preuve <coughs> ba agsil ko rek eh, dañ naan ko su boobaa xaakim bi mën naa dogal am at am am passé ñu wàcc ko niki noonu ba tey masaayil yoo xamante ni luy faral di mat di bàyyi xel la mooy ca lislaam da ko waral ay soxna koo xamante ni da leen yor dafa war a maandu seen diggante yonent bi sallallahu alayhi wa nee na képp koo xamante ni am nga ay soxna ca doo seen diggante bu yomul xiyaamee da nga dekk pant mooy da ngay da ngay jéng noonu lañ leen di xàmmee nga xam ne kon bu bis bencee dee leen xool ku ngeen seen mu dekki rek jéng pant jëm góos xam leen ni kooku ku jàngoon maandu maanduwut li li gaa yi tooñe ku dëkkoon ci dëkk boobu gaa yi tooñe la mooy ku ci ay soxna baaxut ay soxna yamale yombut ci xol dañ loolu yàlla moo bind noonu ci fitra doomu aadama waaye nag ci kaw gi liñ séq bu ci jeng na nga ci maslaa ñoom bu baax a baax a baax nekki noonu ba tey noonu nga ko war a séddalee ci panaan mi bu fekkee da ngay ay ayloo lii nga xamante ni sax mooy sunna ci cosaan ci loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne kaana yatuufu bayna nisaa'ihi da daan aaye ji xam nga yonent bi sax sallallahu alayhi wasallam nekk da def ku aaye rek mu dem sa nekk ala kulli xaal comme jamono ji ni mu soppi ko léegi ba ku nekk am néegit waaye nañ xam ne kon ku aayee rek mooy ki nga ne moo am àq ci fanaan si fa sartuñ nag ci ne bu fa fanaanee sañ ngaa seq ak moom dara am déet déedéet loolu may mbir la koy wax ci mabit la waaye bokkut ak seq ak moom dara ndax sëy moom mi ngi aju ci nit ki nag bëgg-bëggam ak it nag santeem ak ak ni mu ci ni mu ci demee moo tax loolu kenn sàttantiwu ko ak moom waaye li na maandu nag ci fanaan mi bis bu ci ku ci nekk li ñuy wax rek ku moome ku daal ala am na jamono joo xamante ni moom nga war a kii amaa di ci jeng nag baaxut euh, boroom xam-xam yi digle nañ ne koo xamante nii nag yàlla natt na la nga dem ba feebar wala yu mel noonu euh, xam ngeen ne nekk di wër fu ne nga dem fa di fanaan dana xaw a jafe mën naa amit sa soxna yemuñ kii mag la lool kii xale la lool kii ab docteur la kii yeewu na lool su boobaa nag sakku nañ ci yow nga xool ki nga xam ne jàpp nga ne moo gën a ñeewante ci yow moo la gën a mën a toppatoo nga dogal na mu ñëw di fanaan ak yow loolu dagan na waaye loolu ku feebar moo koy def wala ku am ngànt wala yu mel noonu euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen bi nga xamante ne dem na ba wéradi sàkk woon na ci soxnaam yi ne leen damaa bëgg ngeen bàyyi ma ma des ci nekk soxna Aïcha soxnaam yi tees may ko ko loolu it nag noonu la dagane ku feebar kenn waralu la ngay wër fu ne nga dem di fa aaye ndax xam nga loolu sax mën na andi fitna surtout nag koo xam ne dafa am kër yu wute waaye su boobaa xoolal ki xam ne jàpp nga ne moo gën a déggoog yow ndax soxna it lu ñu bari bari nag bu ñu la déggalee xamal ne ñëpp tolloo wuñu ak yow am na ci koo am na ci ku la gën a yërëm am na ci koo xam ne wóor na la moo la gën a mën a toppatoo su boobaa man ngaa dem nekk ak moom nag jamono jooj ba ba ngay wér waaye ku noonu bu jekkee bu demee ba wér wala góor goo xamante ni dafa tukki woon ba ñu bisi fan lay tàmbalee ci ak ayam loolu mat naa mat naa bàyyi xel am na nag ñuy tooñ yenn góor ñi ne bu ñu nekkoon ci tukki bu ñu ñëw sax dañ koy këlkin ngir fexe ba ba mu dajeeg yenn bis yi ñu mën cee ñibbisi ala kulli xaal afallahu amma waaye kooku li nga xamante ni rek moom la ci lislaam atte bu ñu bisee am na ñu ne day tegoo bant fan lay fanaan waaye li ulama ay muhaqiqoon yi wax ñu mujj ñi ne moo gën a jaadu mooy day xool ki nga xamante ni moo amoon àq bi mu fi jógee rek ci kooku lay delluwaat mooy ki mu waroon a mujj dalal ki mu waroon a mujj fanaanal kooku mooy ki nga xamante ni moom lay dalal am na loo xamante ni mën nay bàyyi xel euh, soxna am ñaari soxna wala ñett wala yu mel noonu kenn ki nanguwoo séq ak moom dara mooy nanguwoo séy ak moom waaye li ñu ci jublu rek bëgg sa bànneex bëgg sa shahwa gën a bari ngir boo demee ci ki nga bëgg mën a am séq ak ni nga ko bëggee loolu kenn waru ko def dañ koy tere loolu boroom xam yi dañ koy tere wal euh, dañ koy tere mooy tere sa yeneen soxna yi sa bopp ngir bëgg sa bànneex ak sa kàttan gën a bari sa yeneen soxna yi loolu kenn du ko def moo tax sax soxna dañ bu fekkee dafa dem ba loru ci ñàkk gi nga ñàkk séq ak moom dara dalaa war a boole te su la boolee attekat bi da ko war a atteel forcé ko force la ci loolu bu dul loolu mu am na daan yoo xamante ni mën na la ko teg daan yooyu mën naa dem bàgg sax ci tas soxna si ak yu mel noonu ni ki noonu ba tey am na façon sëy yoo xam ne doon nañ ko lim léegi mooy sëy yi nga xam ne ulama yi dañoo dëppoo ci ne baaxut comme ku takk nit ci idda ci idda wax nañ léegi ne ngoro sax ci idda dañ koy tere waaye nag waxuma laa nga takk ko nee nañ moo sëy bu musta am ñooyam wala yaasu billaahi taala waxtu armal al ihram xam ngeen ne ko armal al du takk kenn du ko takk jamono jooju ko armal ci aj wala umra du takk kenn du ko takk sëy bu mel noonu sëy yi nga xam ne dañ ca dëppoo sëy bi nga xam ne doon nañ ko fi tudd léegi mooy sëy boo xamante ne ëpp na ñeent ci kuréel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëy yooyu ulama yi dañ ne moog lu amut ñooyam mooy sëy boobu sax dañ ne laa yansurul xorma mooy moog lu amut ñooyam jërut talaaq jërut lenn bu moo ko doon njaaloo rek wala yaasu billaahi taala ñooyam yonent bi sallallahu alayhi wa bu mosaa tuub ci ay jamonoom jamono yi nga xam ne mu ngi fi boo mu saa ñëw yor ay soxna yu bari ndax nekkoon ci jeneen diine wala yu mel noonu wala nekkoon ci kéefër lim lay njëkk a wax surtout xaylaan ibnu maslamata saqafi bi mu tuubee dana ko dafa ñëw ba mu tuubee ay bokkam boole ko ne ko ah xaylaan di tuub na waaye nag ah mu ngi nangam ak nangam limal ko soxna yu bare bare bare dane ko ah imsik arbaan wa faariq saairahunna xoolal ñeent ñi ngi téye leen bàyyi ñi ci des waxu ko nag ne ko defal lii ak defal lii ak yu mel la ko wax bu doon nag léegi loolu nag ku ku nekkoon ci jeneen diine tax ñuy wax ndax sëy yee moom bu ci ne nañ ko fase woon xam nga ci diine la waaye ci jeneen diine la waaye bi mu xasee toog ñeent ñu mu tànn rek baax na li am solo rek ci ñeent ñami tànn na doon ñeent ñu mën a ànd ndax xam nga bu doon ci jeneen diine la dañuy bañ mu boole ñaar ñoo xam ne ñoo bokk ndey wala ñu bokk baay <coughs> mu boole nit ak bàjjanam xam nga lislaam da koy tere wala mu boole nit ak bàjj ak yaayam ju ndaw lislaam da koy tere dañuy wax ne ñaari jigéen ñoo boole ñoo xamante ni koo ci wëlbati woon du mën a takk ci des dañ koy tere loolu ci misaal deesul boole jigéen ak bàjjanam jigéen ak bàjjanam boo leen boole woon ñaari soxna yoo xam ne boo leen ne ndax bënuñoo sëy rek kenn leen takkandoo ci gàttal loolu moo gën a gàttal ñaari yoo xam ne boo leen boole woon boo leen boo defoon kenn ki góor def kenn ki jigéen duñ mën a takkante kenn du leen boole loolu mooy xaa xaa xaade ñaari soxna yoo xam ne boo defoon kenn ki góor def kenn ki jigéen doo kenn du leen mën a takkante loolu mënees na koy bàyyi xel kon loolu masala la mu am solo xam naa nag ñu koy kii bëriwut niki noonu ba tey wala yaasu billahi taala ma neen masala moo xamante ni danay faral di am lu bari waras na koy moytandiku takk ab koo xamante jigéen goo xam ne dafa siiw ci taxawaalu zaan njaalo wala yu mel noonu azaani laa yankihu illaa zaaniatun mushrika donte borom xam-xam yi taawil nañ loolu wax nañ li muy tekki mooy kuy njaaloo ci jamono jooju de li ci jaadu mooy ku mel ni moom rek ku war a takk mooy dafa mel ni genre radan la wala zajr wala yu mel noonu waaye nag ulama yi dañoo sib takk ab zaniya loolu dañ koy tere ab njaalookat ku ci siiw ab njabarkat wala yaasu billahi taala da ku ci siiw dañ ko tere ko takk même kitaab yi chrétien yii ñuy takk sax dëgg la ñi ñaa ngi koy def lu bare bari waaye koo xamante ni tëkkoo ko ngir yaakaar ne mën nga ko tuubal war ko takk dañ ko sib ndax xam nga ne takk chrétien dëgg la bu la ko lislaam maye bari na lu ci mën a am dana ko yar ci lu diine ji mën naa nekk xale sa doom jooju mu jox ko sàngara wala mu jox ko meewu mbaam wala yaas billahi taala wala yu mel noonu moo tax yu mel noonu dañ koy tere njaalo amul solo njaalo ñàkk ñàkk solo tax na ba jigéen ku moom jigéen nga am na ci natt yu ñu lay teg ñu baree baree bare nag duñ ko seetlu danañ koy def jigéen nga njaaloog moom bàggal kenn du ko xam xam nga njaaloo dafa xaw a secret sa diggante ak yàlla rek doon waaye na nga xam ne jigéen googu yow mi ko def noteel doomam bu ko takkati mukk dañ la koy tere dañ la koy nettoo doomi jigéen googu bu ko takkati mukk yaayam ka nga mos a njaalool bu ko takkati mukk dañ la koy tere donte nag nit ñi duñ ko seetlu day xaw a nëbbu nag kenn mënu ci ku ne xam nga ko sa diggante ak sa borom waaye na nga xam ne ku ko defee takk nga soxna soxante dafa araam yaa ngi njaaloog moom nanga nga ko ci moo gën a gaaw ndax kat ay lor bu naree am dañuy wax rek ne mooy na nga def li ñuy wax irtikaab ak xafit dara rey ni mooy na nga xool lor ji nga xamante ni mooy lu gën a wér ko takk bul takk baam xaas ba nga xam ne moo ci moo ci jóge bul takk cosaanam la nga xamante ni moo ci jóge mooy kooku daal na nga bàyyi rek mooy li nga xamante ni moo gën niki noonu niki noonu ba tey masala moo xamante ni danay wàcc lu bare baree bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al mumin axuhu al mumin laa laa yabiu ala bay'ihi wala yaxtub ala xutba ala xitbatihi wala ala xutbatihi nit ay mbokkam sa mbokkum jullit loo xamante ni waxaale na ko ci marchandise ne da koy jënd waxtaan ak kooku ba juboo ba nga xam ne fayee ci des bul jaare ci ginnaaw dem di ko jënd loolu jaar jaaduwut sa mbokkum jullit dem di ngoro fenn wax a wax wax ba wax ji dëgër lool ba nga xamante ni joxante nañ seeni i kàddu bul ko jaay doole jaar fee dem dem di ko takk loolu jaadu kenn warul kenn waru ko may sax demaat di nga di di di di ngoro kooku dafa araam waaye nag am na sew-sew bu ndaw bu am foofu boo xam ne mat nay bàyyi xel loolu araam na waaye araamut ci ñëpp araam na ci ñoo xamante ni ay nawle lañ ay nawle lañ mooy ñaar ñu baax doon ngoro fenn ñaari borom xam-xam doon ngoro fenn ñaar ñu am diine doon ngoro fenn amul benn problème bu kenn jaar ci suuf dem di takk ci des waaye nag bu fekkee kala demoon di ngorofee wéyu la lool ca yow ngay ku baax wala sore ngeen lool daal ci niveau ku ñàkk solo la kuy feeñal ak ak ak caay-caay la kuy def lu bon la wala koo xam ne du nawloo am nawlonte nag ci lislaam mooy diinu wal xaal comme ni ko Maalik waxee alkafaatu diinu wal xaal su boobaa yow mii ci des nga xam ne kuf u ndaw si nga dagan na nga dem ngoro ji ko takk kon bala ñoo tere euh, dem ngoro kaneen wala yu mel noonu ci sartu takaafu na am seen diggante mooy yéen ñaar ñi nga xam ne yéen a ngi jamaale waaye nag bu fekkente ne amut seen diggante yow mii ku baax nga ca kee solo wala yu mel noonu loolu xam ngi leen ne amut solo loolu loolu su boobaa dagan na kon ndax nag kat waaye nag loolu it jafe na ndax nit ki di bàyyi leen xel ci nag yàlla ne na fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi man taxa bul jàppe sa bopp mu kit nag ne man ku baax laa wala borom xam-xam laa ca kee euh, doy na waar ku ñàkk solo la ndax nit ki jeng ci côté boppam dafa yomb surtout ci wàllu soxna waaye euh, na ci ki na waaye loolu ku ne xam na ko bu dee kee daal wóor na la ne solo la ku ñàkk solo nag bu ñu ko dee wax mooy koo xamante ni day day béral ak caay day def lu bon nit ñi di ko xam mi ngi def loo xamante ni lenn ci ponk lislaam yi wóor na ne du ko def ñi ñaa ngi koy gis mi ngi naan sàngara ñi ñi di ko gis wala mi ngi addu kalpe ñi ñi di ko gis su boobaa kooku amul ko jënn orma ku mel noonu jëw ko sax dagan na jëw ko dagan na eh, amul orma orma lislaam jox ko bu ñuy teree jëw bu ñu tere nangam bu ñu teree nangam ci ku baax moo tax ñuy wax waaye koo xamante ni ak caay-caayam nëbbu ko kooku dañu kenn jëwu ko mooy ki nga xamante ni moo jëwlu boppam loolu mat nay bàyyi xel nit ki noonu ba tey koo xamante ni da ngay ngoronet ki di gée ca nit ñi di ko tuddee léegi di génn moom loolu lu dagan la lu mën a nekk la ndax nit ki bala nga koo bëgg takk danga ko xam waaye nag li ci lislaam may bariwut wa nazar wajhiha wa kaffayha faqat comme ni ko muxtasar xel waxe ci kaw mu xam ko mooy kanam gi lañ la may nga xool ko tenq yi tenq yi xëy na nee nañ da nga ci xam <laughs> façon yaram mu yor nu mel kanam gi da ci xool jëmm ju nu mel ndax rafet na am rafetut waaye nag wéet moom yenn wéet yi dëgganut jokkoog moom yenn jokkoo yi jo bindanteeg moom yónnenteeg moom yenn foto yi dëgganut jëlale naa nag wéet di àgg ci di laalanteeg moom ci seen yaram dëgganut ak ci nu man a mel donte nag masala la moo xamante ni amma bihil laal moo ñu baree baree bare ñu ngi koy def waaye nañ koy bàyyi xel loolu kenn waru koo def ndax kat euh, xam leen ni ab sëy dafa xaw a doy waar moo tax kenn du ko tàmbalee loo xamante ni lu araam la ak yu mel noonu euh, nit ki doonu ba tey soxna si nga xamante ni nit ki mi ngi koy takk bëgg nañ ci na nekk koo xamante ni borom diine lay doon donte danañ sopp muy nekk sa mbokk nekk bu bokk ci askan bu baax waaye bi loolu lépp jàllee yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne li nga xamante ni moo ko gënal bu mënta ñàkk rek mooy diine daana wax ne wa alay dane woon tunkaxal maratu li jamaliha wa xasabiha wa maliha waaye nag mujjee ko ne wa alayka bi zaati diini taribat yadaak kon nag di takk borom diine baax na lool am na it masala mu sew moo xamante ni bari na lu muy am léegi am na gu am léegi cay nekk ci deret ñu baree bari dañu wax ne takk ku la jege lool dana koy waral sëy ak ku la jege lool wala wala boog bu ko warul te dana koy yokk nañ koy moytandiku nañ xam ne lislaam bàyyi woon na xel lool da nga gis borom xam-xam yi bu ñu lim ñi ñiñ soppatak wa yustahabu kawnuha xasnaa xasanu ziyin xas naa dana wax di lim di lim dana àgg ci ba ne walam taqrub jiddan bul takk ku la jege lool takk ku la jege lool gënut ndax arab yi bu njëkk dañ daan wax ne day waral doom ji ca juddoo ku néew doole lay doon xam naa loolu niru naa loolu léegi li nga xamante ni sant scientifique yi danañ koy wax ne am na wéradi yu am nii léegi dama ko bàyyeetul xel waaye takk ku la jege lool lool wala takk ku am gu mel noonu dana koy waral Seydina Omar radiyallahu taala anhu daana wax ne iqtaribu wala tadwu daana wax ne dee leen wut xurba tuuti moo tax dem di wuti faneen léeg-léegi baax na bari na njariñ loolu bokk na ci li nga xamante ni arab yi daanañ ko wax arab yi sax daanañ nekk di tam di tooñ koo xamante ne dafa takk ku mel noonu léeg-léeg naan kii baayam juru ko daa nga dégg ñaan inna jariran lam talidhu ummuhu wala nama namaahu jadduhu wa amuhu waaye loolu rek loolu lañ ci daan jublu kon ku la takk takk nit ki deel xool bu baax a baax euh, li nga xamante ne lislaam li mu jublu ci loolu lépp it sëy bëgguñ rek muy nekk dugg ak génn dugg ci dara mu gaaw a génn moo tax mu koy xaw a taral bëgg bala nga cee dugg nga di ko xool bu baax a baax tànn ko xool jikko ji xool mbaaxaay gi tànnal ko lépp dala koy tànnaloo ba ci waxtu yi nga koy fas sax daañu la ko tànnaloo ginnaaw tàkkusaan daañu la ko tànnaloo ci weeru koor wala shawal aïchatu radiallahu taala anha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ramadan la ko def ci jàkka ji loolu lépp nag li ñu ci jublu ngir bëgg mu gën a yàgg ndax euh, ab sëy moom la ci waay mën a wax lu mu gën a yàgg moom la ko lislaam gën a bëggee euh, sëy bu gaaw a jeex lislaam fonk ko lool gis ngeen li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne abgadul xalaali ilallahi talaaq fase de dagan na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko fase na sayyidatuna Xafsa yàlla digal ko ginnaaw bi mu fayle ko fase na keneen koo xamante ni faylewu ko waaye nag ngeen bàyyi xel ne yi nga xamante ni yàlla subhaanahu wa taala daganal na ko yëpp moom la ci gën a bañ ndax xam nga ne xaw naa metti li ci juddoo metti na bu dara rek jigéen gi ni nga ko miine ngeen am njaboot ngeen tàggoo xaw naa metti moo tax lislaam di teg condition yu méttee métti bëgg bala nga koo takk nga sonn ci lool waaye bëgg it ngir ndax loolu bu amee rek li liñ la ñu la digg lépp boo jaaree rek du ma ne fase ñàkk léeg-léegi ndax nee nañ ki ko njëkk a def Seydina Ibrahim takkoon na euh, fase woon na soxnaam su xam nga ci sabab su suñ xam yaay soxna euh, sëñ Ismaayil waaye nag teewut euh, lii nga xamante ni moo dagan lépp yàlla moom la ci gën a bañ boo gisee nag kon ñu koy taral lépp bala gi ca dugg tànnal tànnal ko lii tànnal ko amu askan tànnal ko am xam-xam tànnal ku jàng tànnal ku ku rafet tànnal ku mel nangam tànnal ko am diine bëgg rek tànnal koo xam ne bu mu la jege lool jege koo xamante ni boo duggee ba ci biir waxuma la wéradi yi ci nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi foogoon ne day ko day néew doole bu amee bu gën amee doom waaye bu dee ci ñun suñ jamono ji xool leen li ciy mën a juddoo léegi bu jafe-jafe amee léegi loolu kon mat nay bàyyi xel bu baax a baax wa billahi taala tawfiq wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, Serigne Mourtada Bousso Imam ci waxtaan wu am solo wu leer wi nga xam ne indil nga ñu ko tey tam jëmoon ci tomb bu am solo boo xam ne eh, niñ ko waxee woon ci tàmbali jotaay bi eh, tomb la boo xam ne daalaal laal dunduk nit ñi ñu di ko gis di ci teg batitam itam muy xew lu bari muy koo xam ne daa réer ay mbokkam xamatuñ ci moom dara xamatuñ ci moom xibaar xamuñ ndax mi ngi dund wala dundut xamuñ sax ndax ci biir réew mi mu dëkk la nekk wala ci beneen réew la nekk fa mu réer it xamuñ nu mu fa réereek nu mu fa nekkee euh, tomb boobu la doon waxtaane ak atte yi nga xam ne moo ci aju te lislaam jàngale jàngale na jàngale ko rawatina sax nag ci fiqhu Maalik euh, mu mel ne waxtaan wi leer na lool te it mat na niñ ko bëggee wooyu nit amee nañ ko noonu kon fa tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaanal moom sëriñ Murtada yàlla na yàlla yokk xam-xam bi te gën koo dëgëral ci barkeb sëriñ bi mu mel ni bu ñu bëggoon a jaaraat jaar bu gàtt ci tomb yi nga xam ne sëriñ Murtada doon na ko waxtaane dañ ciy tànn rek yenn ci tomb ci tàmbali bu waxtaan wi xam le ne xam la na lan mooy almafxuut maanaam ku ñàkk mooy kan wane ne ku ñàkk daal mooy koo xam ne xamatuñ ci moom dara maanaam xam amatuñ ci moom ay xabaar waaye nag mënees na koo gis koo xam ne xamatuñ ci moom xabaar xamatuñ ndax mi ngi dund wala dund waaye nag mënees naa am ci moom ay information mënees naa xam ne mi ngi dund walla wala dundut noonu la xamle almafxuut Euh, wane na xamle boobu mooy xamle bi nga xam ne moom mooy biñ tànn te ibnu arafa te def ko di boroom xam-xam bu mag ci mazhab imam malik euh, ginnaaw bi it leeral na ku ñàkk ay xaajam wane na ñeenti xaaj la koo xam ne <clears throat> da réer ci réewi jullit ñi hmm, ci am réewum jullit la dëkk dem ci beneen réewum jullit xamatuñ ci moom dara ki ci topp mooy koo xam ne ci réewum yéefër la réer fa la dem xamantu ñi moom dara euh, ki ci topp mooy koo xam ne xeex bu am ci la réere xeex bu am diggante jullit ñi ci seen biir walla xeex bu am diggante jullit ñi ak yéefar yi muy ñeent yooyu ñoo am mu mel ne kon euh, ñi ñuy ñàkk it ci jamono génnul ñeent yooyu ki jóge ci réew mi mu dëkk benn mu dem ci réew moo xam ne ña fa dëkk ña ëpp ay jullit lañ walla mu dem ci réew moo xam ne ña fa dëkk ña ëpp duñ ay ay jullit ay yéefar lañ mu mel ne kon ñi ñuy ñàkk génnuñ ñooñu mu leeral ci lu am solo nag wane ne euh, soxna soo xam ne boroom këram daa dem amatuñ ci moom xibaar yëgatuñ ci moom dara soxna si day dem ca àtteekat ba walla mu dem ca imaam ba mu mel ne kon soxna si du jëlal boppam dogal waaye am na fu ko lislaam joxañ ne ko lu mel noonu bu xewee foofee ngay dem ngir li li la jaaxal nga jàmbat ko fa eh, da dem ca àtteekat ba wala mu dem ca imaam ba wax ko li xew xamal ko ne ko daal sama boroom kër nàngami weer a ngi nii wala nàngami at a ngi nii yoo xam ne dem na dégguñ ci moom dara xamuñ ci moom dara bu ko defee bu boobaa nag euh, euh, maanaam soxna si dañ koy tànnloo tànnloo ci wàllu ci wàllu atte wala muñ mooy benn mu muñ xaar nga xam ne borom kër bi ñàkk doonte ne mu nekk dafay am juróom-ñaar fukki at wala dafay am ñaar fukki at wala at yu mu fa mën a am daal bu fekkee moom mën naa muñ xaar ba keroog borom kër bi di dellusiwaat boobaa moom kooku du am fekkee nag dafa tànn nag atte euh, bu boobaa nag ci la mbir yi di euh, ci ci la ci la am yeneen yu ciy topp mooy <clears throat> imaam war naa gëstu bu baax a baax ndax kii ñëw ne di borom këram ndax moom mooy borom këram ndax moom dëgg-dëggam dëgg-dëgg soxnaam la gëstu it ci ne ndax xibaar bi mu wax ne borom këram daa dem kenn gisatu ko ndax loolu wér na loolu it lu am solo la mu leeral fi lu am solo wane ne euh, ay pexe mën na ci am <clears throat> ndax jigéen xëy na mën naa nekk ci biir këram di sëy bëgg faa jóge wala bëgg a tàqalikoo kamuy sëyal tax mu dem def ay pexe rek dem ne ah sama borom kër gisatuma ko wala amatuma ci moom xibaar bu ko defee bu fekkee imaam bi daa gaawtu jekki-jekki rek daal di jël dogal boobaa jafe-jafe mën naa am kon war naa gëstu ndax euh, li mu wax ne boroom këram nekkatu fi ndax loolu wér na walla wérut loolu am solo la bu ko defee nag bu loolu jàllee nag mu door nag euh, tàmbali nag di gëstu nag maanaam euh, yable nag ngir ñu xool kookee ñu ñàkk fan la nekk nan la nan nan la ñuy def ba mën koo gis ak nan la ñuy def ba mën a mën a ba mën a xam ne moom mi ngi dund wala wala dundut ñu tàmbali gëstu bi bu ko defee nag bu imaam joxee digal ci ci ñu tàmbali gëstu bi day wax nag soxna si na toog maanaam ñeenti at e, ñeenti at yi bu fekkee borom kër bi ñëw na ci alhamdulilah bu fekkee ñeenti at yi mat na te borom kër bi ñëwu ci bu boobaa soxna si da daal li da mooy day ku faatu mooy dañuy jàpp ne kon borom kër bi moom faatu na donte ne sax amuñ lu ñu leer ci ci ne ci ne faatu na waaye dañuy nattale rek ci ne faatu na bu ko defee mu dal li idda wu idda yi koo xamante ne nii ne ku faatu la te mooy e, ñeenti weer ak fukki fan te ci biir idda ji it ku faatu li liñ ko sant ci buy xidda mu def ko loolu it lañ lañ koy sant te mooy moytu tuwaaletu ak laal euh, gët ak xeeti euh, tuwaalet yi nga xam ne moom lañuy tere euh, ku kuy kuy kuy kuy kuy tëñ mu leeral foofu nag lu am solo lu mat a bàyyi xel loo xam ne dañ koy faral di laaj lu bari mooy soxna si bu fekkee dem na ci imaam wala mu dem ci xaad yi bu fekkee gis nañ ne borom kër bi ko fi bàyyi bàyyi na fi dépasse bu mat boo xam ne mën na ciy dund nga xam ne boroom kër bi fa mu nekk bu fa doon am ñaari at wala bu fa doon am ñetti at it bàyyi na fi dépasse boo xam ne soxna si mën na ciy dund ak njaboot gi mu fi bàyyi kooku alhamdulilah bu fekkee nag bàyyi wu fi dépasse mën naa sàkku ñu tas sëy bi ngir ñàkk gi mu fi ñàkk bàyyi dépasse maanaam imaam wala xaad mën naa tas sëy bi ngir ñàkk gi fi ñàkk bàyyi dépasse ndax it nag xam nañ ne dundal soxna ci warugar yi war borom kër ci la bokk ci warugar yi war boroom kër dundal soxna ci la bokk nga xam ne warugar woowu bu fekkee taxawewu ko euh, fas sëy bi xaad yi mën na ko mën na koo def wala mën naa fas sëy bi ci ñàkk muñ bu fekkee soxna si ci boppam dafa doon koo xam ne munta muñ diir bu yàgg ngir xaar boroom kër gi bu boobaa it mënees naa tas li nga xam ne moom mooy euh, mooy sëy mel na ko loolu buñ ci sukkandik buñ ci sukkandikoo day mel ne kon xaar gi ñeenti at xaar gi ñeenti at moom beneen ate la mooy bu fekkee soxna si ci boppam nee na mën naa muñ te it li fi borom kër bi bàyyi ci dund doy na ko li fi borom kër bi bàyyi ci dund doy na ko waaye bu fekkee nag dafa nekk jigéen joo xam ne munta muñ munta xaar yenn xaarit loolu day am bu boobaa ah mën naa wax imaam ñu ñu tas sëy bi boobaa bu ñu koy tas duñ ko tas ngir ne boroom kër bi dafay nekkul rek waaye dañ koy tas ngir ne moom munta muñ loolu lu am solo la Euh, mu leeralaat lu am solo li it ci biir waxtaan wi loo xam ne day am mooy koo xam ne boroom këram dafa dem euh, ñu jàpp ne boroom kër bi faatu na ba mu xiddawu xidday ko faatu far mu ñëwaat mu feeñaat <laughs> hmm? far mu feeñaat loolu day am bu yàggul rek euh, menn mbokkam koy nettali <coughs> di wax ne dafa am soxna soo xam ne boroom këram mool la maanaam ci géej gi lay liggéey dem na ci géej gi lu mat fukki fan ak juróom wala ñaar fukki fan ñu yëg la ci rajo yeeg télévision yi ne dafa am gaal gu réer mbokk mbokki kooko jàpp ne moom daal ci ñooñu la bokk maanaam jàpp ne daal euh, moom it daa faatu rek nee na bañ bañ bañ dëjal ba saraxal maanaam defal ko saraxus ñetti fan ci ñetteelu fan bi ci ñetteelu fan bi ci la ci la kooku ñëw kañ jàpp ne daa faatu <laughs> nga xam ne kon luy luy luy am la euh, loo xam ne lu ñuy euh, lu ñuy dund la bu ko defee nag léegi kon mu leeral foofu lu am solo wax ne bu fekkee boroom kër bi daa ñëw te soxna si mayee guñ ko kon boroom kër gi ci gën a yaay boobaa day mel ne kon wa buxuulatuhunna axaqqu bi raddihinna loolu mooy ñëwaat mooy borom kër bi moo ci gën a yaay ci jël ko bu fekkee bi mu ñëwee fekk na soxna ñu maye ko waaye kañ ko may mafxuud maanaam ab moodu moodu la boo xam ne nekku fi xëy na wala ab tukkikat la boo xam ne biñ ko mayee soxna seeg léegi boobu moom ñëw ñëw ñëwut ñibbi ñibbiseegut bu boobaa yit ba tey boroom kër bi feeñ moo ci gën a moo ci gën a yey beneen bi it mooy bu fekkee dañ koo may koo xam ne ki ñu ko may ci boppam xëy na njortu nañ ne xamoon na ne boroom kër baa ngi baa ngi doon dund maanaam nga xam ne xëy na daal moom daa daa bëggoon soxna si gaawantu rek bëgg cee jot tax mu takk ko waaye amoon na information ci ne borom kër bi moom dara jotu ko wala amoon na information ci ne kër bi daal moom ma ngay dund bu boobaa lu mel noonu it lislaam day wax ne kon dañuy tas sëy bi bu defee boroom kër bu njëkk ba moo ci gën a yey ngir lan ngir mbugale ngir mbugale ko ki nga xam ne moom mooy borom borom këru ñaareel bi loolu it euh, euh, leeral na ko euh, mu leeral it ne koo xam ne dafa dem bàyyi fii lu ëpp benn soxna maanaam nga xam ne ñaari soxna la fi bàyyi wala ñetti soxna la fi bàyyi bu fekkee soxna yooyee benn ci soxna yi dem na kalaame ji rek boobaa day day mel ne soxna yëpp a kalaame nga xam ne du jar kon bu kenn kalaamee kenn keneen demaat kalaame waat keneen demaat kalaame waat bu kenn kalaamee rek imaam ci procédure bi muy jaar même même benn procédure bi la mooy la ñu waxoon ci ginnaaw ci gëstu ndax xibaar bi wér na ak ndax boroom këram nag euh, euh, dëgg-dëgg euh, nekku fi loolu lii sëriñ bi leeral na ko ci biir waxtaanam loolu mu doon leeral nag mooy lu aju ci koo xam ne dañ koo ñàkk tam nekk ci biir tam nekk ci dëkk jullit ñi nga xam ne mën naa am sax moom ci biir dëkk ba mu dëkk ca biir dëkk ba la nekk waaye xamatuñ fu mu nekk wala da génn biir dëkk ba dem ci beneen dëkk wala ci beneen réew te xamatuñ fu mu nekk waaye daal réewum lislaam la wala réewum jullit la acte yooyu moom moo ci aju bu dee nag koo xam ne euh, daa dem ci réew moo xam ne réew yi yéefar la ardu shirk kooku moom lam ca leeral mooy atte mel na ne mooy gën a diis tuuti ndax danañ xool borom kër bi dañuy natt ci sinu taamir maanaam dañuy xool daal at yi nga xam ne ñaare ci la nit ñi di ëpp lu ñuy faatoo bu borom kër ba amee at yu toll noonu ñu jàpp ne kon boroom kër ba faatu na ci ni mu ko leerale ñii ne juróom-ñaar fukki at la ñii ne juróom euh, ñett fukki at la nga xam ne koo xam ne borom këram daa jóge ci am réew dem ci réew moo xam ne réew ay yéefar la te ba mu fiy jógee booba xëy na juróom fukki at ak juróom la am bu boobaa lañ cay tegaat ci at ñu sukkandikoo ci ñuy wax juróom benn fukki at mooy juróomi at lañ cay bu fekkee ci ñuy wax juróom ñaar fukki at la boobaa kon danañ xaaraat yeneen ñaar fukki at bu ko defee soxna si door a mën a euh, door a mën a iddawu idday ku euh, ku faatu naka noonu it leeral na koo xam ne dañ koo ñàkk ci xeex bu am diggante jullit ñi wala yaasu billah fa in taifataani min al muminina iqtatalu loolu it lim ci leeral mooy bu fekkee xeex bi jeex na ba am ba ak dal am te gisuñ borom kër ba boobaa dañuy jàpp ne faatu na rek nga xam ne soxna si daal idda wu moom idday ku faatu bu dee xeex bu am diggante ay jullit ñi la ak yéefar la it àtte boobu rek lañ ciy doxal mooy bu xeex bi jeexee ak dal am te gisuñ boroom kër ba bu boobaa itam eh, day xiddawu xidday xidday eh, ku faatu eh, mu leeralaat lu am solo ci wàll googu loo xam ne day day dugg it ci baabul mafxuut mooy koo xam ne maanaam mbas bu amee am mbas pandémie bu fekkee dafa am di pandémie boo xam ne day faagaagal ci ay nit ñu baree baree bari euh, di faat ay bakkan yu euh, baree bari bu fekkente ne nii ni tamit jamonoy pandémie ci la ñàkkee ci la ci la ci la soxna ñàkkee boroom këram ñu toog ab diir gisuñ ko ba tey dañuy jàpp ne rek kon mbas ma moo ko faat dañuy jàpp ne mbas ma moo ko faat ci mbas mi la faatoo bu ko defee soxna si daal di day daal di iddawu idday koo xamante ne nii ne ku euh, ku ku faatu la euh, kon loolu ay atte la yoo xam ne yu aju ci euh, mafxuut la mu mel ne li mu ko waxee ci tàmbali bi day mel ne baabul mafxuut muy maanaam ku ñàkk moom boroom xam-xam ci wàll gi ciy gën a insister mooy ci wàllu soxna si mu fi bàyyi maanaam mu dem bàyyi ko fi wala soxna yi mu dem bàyyi leen waaye nag day mel ne baabul mafxuut dana laalaale ñeneen ñoo xam ne mën naa am duñ ay du soxna wala du ay soxna maanaam lu mel ne ki ñàkk bu fekkee moom dafay bàyyi ñu mu war a donn moom lu mel ne mu bàyyi fi bàyyi bàyyi bu mu war a donn wala mu bàyyi fi ay doom yu mu war a donn loolu it day duggaale ci buntu maanaam baabul mafxuut ndax nit mën naa dem mën naa am xëy na bàyyiwu fi soxna waaye bàyyi na fi bàyyi bàyyam faatu fi ginnaaw bi te moom xamuñ ci moom dara <laughs> ñu war a ñu war a miiraas loolu it téere fiq yi ñu ngi koy leeral euh, ndax dañuy wax ne bu fekkee ki ki ki ñàkk tam bàyyi ko fi dafay bàyyi ko faatu koo xam ne ku war a doon la euh, ñaar rek kay mën a am mooy benn moom moom mi war a donn doon koo xam ne am na ñu mën a yiir maanaam am na ñu mën a yiir am na ñoo xam ne mën na leen a tere donn bu boobaa moom dañuy taxawal miraas mi ba keroog ñuy am lu ñu wóor ci nekkee faatu na wala faatu. bu fekkee nag moom doonut ku yiire nga xam ne daa am cër rek nit ni ñeneen ñi ci des ameeb cër bu boobaa moom dañ koy sàkkal ab cëram tegal ko nale bu feeñee ñu jox ko ab cëram bu fekkee feeñul nag cër bi ñu daldi koy euh, miraas loolu kon day wane ne kon maanaam euh, ku ñàkk ni nga xamee ne noonu la yitteele soxna noonu it la yitteele ñi nga xamante nii ne ñoom la fi bàyyi itam war leen a donn loolu ci wàllu waaye sax ak àq yi maanaam àq yi mu yi mu yi mu yi mu ameel ñi mu fi bàyyi ndax moom mbokk la moo xam ne dafa dem bàyyi fi ay mbokk te yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax naan daa da doon na wax ne inna li nafsika alayka xaqan wa li zawjika alayka xaqan fa axti kulla zi xaqin xaqahu euh, kon euh, mu mel ne kon ni mu ko waxee rek maanaam dem tukki tukki bu yàgg euh, fa tabarakallahu lu lu mat di moytu la lu mat di eh, góorgóorlu la ndax eh, eh, bàyyi nga fi soxna yu am ci yow ak bàyyi nga fi ak njaboot waaye tamit bàyyi nga fi ay ay mbokk mu mel ne kon daal buntu la bu yaatoo yaatu boo xam ne li ci aju ci ay bind ak li ci aju ci yu yuñ ci mën a wax bari na lool te sëriñ bi leeral na ko bu ko defee kon mel na ne waxtu mi ngi jege ñu ngi sant bu baax a baax Euh, maanaam euh, télé bi nga xam ne wala zen bi nga xam ne moom moo topp daayira Muxaddamatul Xidma muy GMT TV nga xam ne bis bu set mooy tuxal waxtaan yi ak jotaay yi am ci jumaa ji ak yeneen euh, taxawaay yi nga xam ne moom mooy am ci jumaa ji ñu ngi koy sant bu baax a baax di sant it mbooleem télé ak site internet yi nga xam ne ñu ngi jàllale waxtaan wi ci jumaa ji ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla yàlla fay leen Euh, di xamal mbokk yëpp ne suba insha allahu danañ amaat beneen jotaayu waxtaan boo xam ne mi ngi jëm ci eh, li li yi war tañ war cee tàmbalee yi nga xam ne daal daa war tañ war cee tàmbalee euh, nan lañ ko war a xamee ak nan lañ ci war a nan lañ ci war a taxawee insha allahu danañ ko mooy mooy doon tàmb waxtaan wi suba ki koy def mooy Serigne Sam Bousso euh, Abdourahman insha allahu ci waxtu wi ak ci jotaay bi kon daal mbokk yi ñu ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo teew ñoo teew woon ci barab bi doon teew la waxtaan bi doon teewlu jotaay bi waaye di jagleel ak sant it sëriñ Mourtada Bousso mi nga xam ne moom moo doon def waxtaan wi nga xam ne ci biir waxtaan wi feeñ na ci ne moom faqih mu tamarris la <laughs> maanaam boo xam ne attey fiqi yi jàng ko nii rek ci eh, téere yi nii rek yam ci waaye ab at ab la buy atte boo xam ne dañuy indi ci moom <laughs> ay xadaaya di ko ko gaaral muy wax ne lii lii la ci sariya wax lii la ci sariya wax loolu nag lu am solo ci koo xam ne kuy waxtaanee ci mbirum euh, fiq la kon ñu ngi koy sant yàlla na yàlla fay ko te dëgëral ko te euh, fa tabarakallah yokk xam-xam bi ci barkeb sëriñ bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey baalu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh